suratul an'am saaru juru kër gi màkk la wàccee lan la saar yi wax saar wi xëy na daan ko jàng ba yàgg nga dégg ñu ne la lii nangama ko tax a wàcc loola danay seet ay xew-xew yu tolloo woon ak wàccu saar wa rek ulama wu tafsir nettali ko waaye saar yi moom benn yoon la wàcc benn yoon la wàcc juróom-ñaar fukki junne malaaka ñoo gunge saar wi jibril ba muy indi saar wi noonu la ko yenent bi waxee nee na sabuuna alf min al ñoo ànd ak jibril di indi suratul anam wàccee ko benn yoon malaaka yi ba ñuy ñëw jibril ngi am di ko indi juróom-ñaar fukki junne malaaka yi ñu ngay aka sant yàlla yi ñëw naan ko subuuxun quddus rabbul malaayikati wa ruux di ñëw moom noonu la saari wàcce ci mag kon maayida wax naag àllul kitaab wax naag mushrikoona yi maayida teqale na lépp loo xam ne xaraamal nañ ko ci teqale ndax mooy saari mujj wàcc ci saari alquran mooy maayida lana am nii nag mii nag am na yu xaraam yu ba mu koy tudd da koo bëmbëstal bismillahi rahmaani rahim alhamdu cant lillaahi ñeel na yàlla allazi yàlla bi nga xam ne xalaqa bind na mu asamawaati asamaan wala ard ak suuf wa jaala mu def dalimaati lëndëm wa noor ak leer su ma lazina topp ñi nga xam ne kafaro weddi nañu yaadiloona ñoom ñooy utal ndend bi rabbim seen borom ñooy utal yàlla ndend muy morom wa yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne xalaqakum bind na mu leen min tinin ngeen bàyyee ko ci ban su ma mu dogal ajalan ab dig wa ajalun am na beneen dig musamman bu ñu tudd indahu fa yàlla loolu mooy kenn xamu ko mooy kañ la kii dee ndax dig bi yàlla tudd na ko benn ba nag fa moom la nekk mooy wa ajalun musamman indahu su ma antum yéen nag tamturoona ngeen di weranteek sikk wowa yàlla allahuma yàlla fi samawaati ci asamaan wa fil ardi ci suufit moo fi yàlla yàlla mu xam ne sirrakum li ngeen nëbb wa jaarakum ak seen li feeñ wa yàlla mu xam ne yàlla maa taksiboona lépp la da ngeen fàggu ko yàlla xam na ko wa ma taatihim du dikkal leen min ayatin benn kawtéef min ayati rabbihim ci kawtéef seen borom illa kaanu lu mooy ñu nekk ñoom yéefar ya moo aradina di way dëddu faqat kafaroo weddi nañ bil xaq ci dëgg la maa jaawam ba mu dikkalee leen fa safa yaatihim xal si dikkal leen am baawu maa kaanoo soley lépp lu ñu nekkoon yestasiw na di yëjji ko alam yaraw ndax xamuñu kam naka day kam ñaata alak naa la ñu alak min qablim lu leen jiitu min xarnin ci maas makkan naawum saxal nañ leen fi di ci suuf maa loo xam ne lam nu makkin suñu ko jàppandal lakum ñeel leen bari na ay xeet yoo xam ne alag nañ leen te xeet yooyu tamkiini tamkiinaat ah, imkaaniyaat yi ñu leen joxoon ci àddina yéen ñii joxuñ leen ko te alag nañ leen kon yéen bu ngeen weddee alag leen lu yomba yàlla la waa arsalna yónnee nañ sama asamaan alayhim ci ñoom midraaran muy dotti yaakoon وجعل naa ñu def alanhaari yolnde ya tajri muy daw min tahtim seen suuf fa alak naawum ñu alag leen bi dunubin seen bakkaar wa ansha naa ñu sos min baadim seen gannaaw qarnan ay maas axarina ñeneen walaw nazal naa suñu wàccee woon alayka ci yonent bi kitaaban téere fi qirtaasin ciw kayit fa lamasoohu loolu itam mufassiroona yi ñu ne dañ ñëwoon na yonent bi daal ñaari mbir daal fokk nga def ko benn bi moo di ne mbindeef rek nga di lekk ñam niñ koy lekkee di naan ndox niñ koy naanee lu tax kon nga ne yàlla la yónni meneen mbir ma moo di ne tee malaaka yi wàcc boo ne yàlla nee na ñu ne dëgg la ñun malaaka yi ñoo ko fekkee lii daal boo ko defut lii illaa sexrun lu mooy muy njabar mubiinun gu daaji biir wa qaaloo ñu nga naan law laa unzila te wàcceef alay ci yonent bi malakun malaka walaw anzalna suñu wàccee woon malakan malaka mu ànd ak yonent bi it kon musiba am àddina tukki ndax malaka du wàcc ci caaxaan la qudiya kon teg koon na atteef jeexaleef alamru mbir ma su ma laa yanzuruna defun muñal leen malaaka du wàcce noonu rek ku koy wax da ngay wax rek waaye xam nga ne moom du wàcce rek ci lu simple su ma ko wàcce woon fekkoon na seen mbir jeex te kenn du leen muñal walaw jaal naaw buñ defoon yonente bi malakan muy malaaka la jaal naaw kon ñu def ko rajulan muy waay bu ñu yónni woon malaaka it jëmmi doomu aadama lay amee ndax ngeen mën koo gis kon nag walaw jaal naaw malakan la jaal naaw rajulan te ko it wala la labas naa kon mu lënt alayhim ci ñoom maayel bi sonal li ngeen di lëntal te kon bu nekkee nit ngeen naan malaaka wàccagut ba tey ak nit la te ko it du ngeen ko gëm kon loolu amul njëriñ wala xadu suusiya yow yonente bi loolu bu la metti yéjjeefoon na bi rusulina ay yenent min qablika li li jiitu faaqa wàcce bi si ne ñi nga xam ne saxiroo reetaan nañ minum ci ñoom maakaano la ñuy nekkoon yestaasiuna di yejji ko kul waxal siroo tukki leen filaar di ci suuf sumaan zuroo seet leen kay fa kaana naka lay nekkee aqibatul mukadibin mu jëg ñi nga xam ne ñoo weddi kul waxal liman maa fi samawaati su fekkee yàlla xamu leen ko ana kan moom moom ñëpp lépp li nekk ci asamaan wala ardik suuf kul tontul ne lillaahi kataba faratal na ala nafsi ci boppam rahmata yërmande laa yajmaannakum wallahi dana boole leen moom yàlla ilaa yawm alqiyamati ci bés penc boo xam ne laa rayba def sikk fii ci moom la si ñi nga xam ne xasaroo perte nañ anfusahum seen bopp fahum ñoom laa yuminuuna duñu gëm wala woo ñeel na yàlla maa sakkana lépp lu dal na fi layli ci guddi yàllaa ko dalal wa naareeg bëccëg lu ci yëngu yàllaa ko yëngu yëngal wa huwa yàlla sami mu yaa ji xam mu yaa ngir man mi ñu yónni man mi bind asamaan wala dég suuf wa huwa yàlla yut'imu mooy lele wala yut'amu déeful leyal ko de xul waxal ne inni man mi ñu yónni umirtu digaleef na ma ana ko na may nekk awala man aslama njël benn ku jébbal boppam yàlla wala takuna na bul nekk a mushrikina ci way weddiya kul waxal ne inni man a dinaa ragal ina asaytu ndem mooy naa rabbi a borom aadaaba yawmin mbugalam bés azima mu daaji màgg man yasrif ana kan mooy soppi man yasrif ku soppi na anu ci moom képp ko xam ne yàlla soppil na ko mbugal ba mbugal ma may ko yow may sin keroog faqad rahimahu kooku yàlla yërëm na ko wa man yusraf ku soppeef na ba dawale ko anu ci moom yow may sin keroog mbugal ma ba dajewul ak moom faqad rahimahu kooku yàlla ko yërëm rek waaye defalul yàlla dara wa zalika loolu alfawzu moo dik texee almubin boo xam ne aji biir la mooy dajeg yàlla mu soppi mbugal mi ba mu mooy la wayin yem sës ka ndem laal na la ndem laala leena la laahu yàlla ba durin ci lor xiif feebar xiif ñàkk bu la ko yàlla tegee xamal ne falaa kashifa déet jën na aji huññi la woo ci loolu ilaa walu mooy moom waaye yemsuska ndem laal na la bi xayrin aw yiw xam-xam jàmm am am wér fa huwa yàlla qadiruna jaatan laa laa kulli shin ci lépp lëf huwa yàlla alqaayiru mooy aji not fawqa ibaadi yi ca kaw jaamam ya huwa yàlla alhakim mooy aji xarala alxabir mooy aji dañ kumpa kul waxal ne ayu cheyin lan lëf akbaru moo gën a màgg shahadatan ci seede su ko defee ma jël kooku mu nekk seede xul waxal ne allahu yàlla day moo gën a màgg kon nag mooy seede shahidun mooy seede bay ni sama diggante wa bay na ku mag yéen wa waxiya waxyoof na ilay jëm ci man haada alquran jile alquran yàlla moo ma ko waxyu lu tax li unzirakum ngir ma waar leen bii ci alquran waaye waaye wuñ ma ko ngir ma bindal leen ko ngeen di ko takk wala ngeen di ko naan wala ngeen di ko jàngal néew ngir yaakaar ne moo koy ramm loolu taxut waaye uxiya ilayya hada al quran li unzirakum bihi lii moo tax ñu indi ko ci man wa man balax ak képp koo xam ne sama kaddu jot na ko ay ay nakum naka yéen la tashaduna ndax da ngeen di seede ne ànd ma àllaay mën naa ànd ak yàlla moos aliyatan ay yàlla ukra yeneen kul waxal ne man de la ashadu du ma seede ji moo boobu musiba kul waxal ne innama huwa nak yàlla ilahun yàlla la waahidun benn way ni nii man bariwun aji dañ laa mi maa tushrikuuna ci lépp loo xam ne da ngeen bokkaale ko lu ci ne nga xam ne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere yaarifuuna woo xam nañ ko ñoom yahudiya kama yaarifuuna ni ñu xamee am naahum seen doom ndax sa doom léppam ngay xam lu ci nga xam ne xasuroo perte nañ anfusahum seen bopp foofu ñoom laa yu'minuun duñu gëm wa man adlamu ana kan moo gën a mën a tooñ mën a fitara kuy duudal alallaahi waral yàlla kadiban ay nar mooy nga wutal yàlla doom wala nga weddi ne du ma wàcc alquran kooku yow yaa dudal yàlla aw kaddaba wala ma weddi bi ayati yi ci alquranam innahu nak luy mbir laa yaflihu du texe mukk azzaalimuna way tooñ ya wa yawma naxshuru wa yawma naxshurum bés ba danañu fangaleen jamian ñu nekk mbooloo ñoom ñëpp ñu nekk ci benn dingire su ma naqoo lu ñu wax nag li li ci ne ñeel ñi nga xam ne ashrakoo ñoo doon sàkk sàkkal yàlla yi bokkaale wutoon moroomi yàlla yàlla ne ma ngoog nag yéen ñëpp dekki ngeen ku nekk gàddu na téeréeb jëfam ay na shurakaakum ana seen yàlla ya ana seen bokkaale ya lu ci ne ñi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen caadina te zaamuuna di yaakaar ne mën nañ dara su ma lam takku nekkut fitnatuhum seen fitna keroog mooy ñu tontu yàlla ilaan qaaloo lu may dañ ko wax ne wallahi yàlla rabbinaa yow suñu borom ñun kay ndax ku bokkaale ba dee yàlla ne an bokkaale ba nga ne yàlla man musuma laa sàkkal bokkaale yàlla ne untur seetal kay fa kaddaboo ni ñuy naree ala anfusihim narloo seen bopp wa dalla réer na anum ci ñoom maakaano lépp lu ñu nekkoon yëftono di duudal ko yàlla lépp lu ñu doon jaamuti duud yàlla keroog keroog loola dafay dal di dafay dal di réer bàyyi na lool mu ñëw ci wa minhum man yastamiu ilayka loola lu ko tax wàcc abu sufyaan ak walid nadr ibnul xaaris uqbata ibnu abi muhitin cheybata ibnu rabiata abu jaal ibnu hisham sa sangi màkk yi dañoo daje guddi dégg yonent baa ngi jàngal quran di naafila ñu ne tekk ñoom mbooloo moom di ko déglu muy jàng ba te li muy wax yëpp seenu làkk la ñu xam ko ñu daal di téye nadri ci loxo nag ne ko nag tey nag dang nu waxal ndax yow boroomi xibaar nga yow yaa fi mën a liir mën a jàng yaa ñuy nettalil xibaar di ñu indil ay film di ko liir ci ay romain ñuy dégg tey nag nanga nga ñu wax nag ndax lii Muhammad di wax dëgg la wala déet wax ñu nadar ne xaw ma ci dara maa ngi ci yem ma ngi yëngal aw làmmiñam rek waaye yaakaar naa ne seen imaam yi jëkk ya loola rek la gis nga yi ma fa jënd Iran di leen ko nettali mu di ay xissa yu reelu muy rome yi loolu rekk lay wax loolu Nadir wax Abu Sufyaan ne gaw ma ko de yaakaar naa ne dëgg lay wax gis nga kii lii muy wax dëgg la looloo tax plus aboo Abu gëm na yàlla Abu Jahl ne déedéet fen nga waxu dëgg ay caaxaan rekk lay wax alquran nag ne wa minhum nekk na ci ñoom man yastamiu kuy déglu ilayka ci yow wa jaal naa waaye def nañ ala qulubim seen xol ya akinatan ay muuraay an yafqahu ba ñu dégg ti ka wa fi azanihim def nañ ci seen dégg ya waqaran ak diis ba duñ la mën dégg wayen yaraw ndem gis nañ kulla ayatin bépp kawtéefit laa yominoo duñu gëm bihaa ca kawtéef ga hatta isa jaawu ka ba ñu dikkal la nag yu jaadiloo naka ñu ngi dàgg seen teg yow yaquulu di wax la dina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ in haza déet li yonent bi wax ilaa lu may muy seen imaam yi jëkk ya ñoom yén aw na yén aw na ngay tere anu ci déglu ga wayen aw na ñuy sori anu ci dégg gi wayen yolikoon den ñuy alak ci loolu ila anfusum lu may seen bopp wa maa yashuruna te xamuñ ne seen bopp rek la ñuy alak waaye ba yowmal qiyaamee ba ñu taxawaleen ci kanam safara dana doy waar muy ñaari ñaari mawaqif ci mashahid yowmal qiyaama lay nettali moo tax mu ne walaw tara soo gisoon yow mi may waxal wala walaw tara boo gisoon yow mi may yónni is wuqifoo ba taxawaleef yéefar yooyu ala naari ci safara fa qaalu ña nga naan yaa laytana yellante ñun nu raddu dee fi delloo ñu ci àddina nu kaddibu ko ndey duñ weddeeti bi ayati rabbina ci alquran suñu borom wa nakuna dana nekk minal mu'minin ci way gëm ya bal lu fi nekk bada feeñ na lawum ñeel leen maakaanu lu ñu nekkoon yëx fona dina bokk min qablu ci jëkk kéefér gi yëpp feeñ na walaw roddoo donte delloof na leen danañu dellu limaanu ci la teref na ko àndu ci moom wa innahum ñoom kon la kaadiboona way nar lañ wa qaalu ñu nga naan in hiya déet déet addina illaa xayaatuna suñu dund ba duniyaa bu daa ji jege wa maa naxnu déen ñun bi mabusina kenn duñu dekkal ku dee rek dem nga waaye walaw tara boo gisoon is wuqifoo ba taxawaleef leen ala rabbim seen kanam borom qaala yàlla nga naan alaysa haza ndax de dekki ak safara si bil xaq muy dëgg qaalu ñu ne bala ah kay lii dëgg la wa géñ nañ ci suñ borom xaala mu ne kon nag ndeem weddi woon ngeen ko ngeen ñëw muy dëgg peraamatut fa zoqoo mos leen alazaba mbugal ma bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon takfuruna di weddi ko xar xasira perte na la dina ñi nga xam ne kaddaboo weddi nañ bi liqaayi laayi dajeg yàlla képp ku weddi ne da nga dekki dajeg yàlla yàlla ne kooku perte na hatta isa jaatum ba dikkal leen saatu bis penc baxtatan ci mbetteel xaalu ñu ngi naan yaa asratna woo nañ suñu réccu ala ma faratna ci li ñu sàggan fiyaa fafale woom ñoom yaxmiluuna ñi ngay yenu aw zaarum seen bakkaar ya ala duhurim seen gannaaw ya ala dëgg saa bon na maa zuróona li ñuy bakkaar wa mal xayaatu dunia déet àddina ila laibun lu may fola te pa moom balaa yàgga mu tas wala wuntey caaxaan wala daaru kër ga alaxiratu guddaay ji mujj xayrun moo gën waaye lillazina ñeel ñi nga xam ne yettaquuna dañu ragal yàlla salatu Salam jaxle nga ibnu jariru tabari Nena. ben yefer bu naan akhnas ibnu shuraiq ak bu abu jal ibn hisham ñom ñaar dañoo daje ci mbedd mu lëndëm guddi akhnas dal di abu jal ne ko yaay buram mak yaay sanga bi quraish nga ya fi gëna dégg arab tay nak man rek ken nek fi poñe na la fokk dag ma wax muhammad limuy wax deug la wala du deug suy dëgg ñun ñëpp ñu dem toppi ko bu du dëgg ñu jéem koo rey Abu Jahl nag bàyyi ma rek ma wax mu bàyyi poñe bi mu ne maa ngi lay waatal ci lépp lu naam ci yàlla ne Muhammad mii lépp lim wax dëgg la ndax moom xam nga ne du fen xamul fen sax waaye nag léegi nag seetal mbir mi bu fekkee ne Banu Qusay drapeau Makka seen kër lañ ko samp root sam-sam ñoo ko moom wodd kaaba gi ñoo ko moom daaru nadwata seen kër lay daje ak yonent rek fi des mu ñëwati banu Hachim jël ko Quraysh lu ñuy jëlati lii moo tax ma opposé ko loolu rek la yàlla nag ne qad naalamu xam nañ ne innaka innahu naka loolu la yaxzunuka dana tiit loola la si ne la nga la nga xam ne yaquluun danañ wax ko ba innahum ñoom laa yukadiboonaka weddi wuñ la walakin waaye addalimina way tooñ yi yajhadoona ñooy weddi bi ayat lay ci alquran wala qad kuddibat weddee foo na rusuluna yonente min qablika lu la jiitu fa sabaroo muñ alama kuddiboo ca la weddeef na leen ko wa ozo loref leen ata ataam ba dikkal leen nasruna suñu ndimbal laa mu badila déet aji soppi li kalimaati lay ci baati yàlla wala qad jaaka dikkal na la min naba il mursalina ci solo jëlee nekkoon na ndem nekk na kabura di màgga aleyka ci yow iraaduhum dëddu giñ la dëddu fekkee dafa rëy ci yow ba metti la kon itam looy def nag fokka am ñu la weddi bu ci sonal sa bopp yàlla nag daal di mel ni dafa meree nag mere nag ki waxal mu ne yonent bi léegi yow man maa la yónni jox naa la alquran wax naa ne yow ku nekk ci dëgg nga am ñu la weddi tax mu naqari la ba metti la ba yaa ngi wut kawteef léegi nooy def nag fay na sa taata soo manee an tabtaxiya ngay sàkku nafaqan am pax siraat bi ci suuf booye ba nga dugg ci suuf wuti kawteef jox leen aw sulaman wala nga wuti kerkeraan yéeg fi sama yi ci asamaan fataati yow nga indi leen bi ayatin ci kawteef booye ba nga def ko walaw sha allahu bu neexoon yàlla la jaala mu la ja jamaa jamaa mu boole leen alal hudaa ci mu njub wala na bul nekk min al jaahilina ci ñi nga xam ne way réer lañ bi nga xam ne dana ñu ko dëngee ñoom ñu di dekk ne innama yastajibu naka dana woyu ladina ñi nga xam ne yasmauna ñooy dégg kuy dégg daal kooku nga mën a woo mu mën laa woyu wal mawta waaye way deeye nag yabaasuhum dana dekk leen laahu yàlla su ma yorjauna defi delloo leen lay jëm ci yàlla wa qaalu ñu nga naan lawlaa nuzila te wàcceef alayhi ci yenent bi ayatun kawtéef min rabbihi bu bàyyee ko ci boromam kul waxal ne ina laa yàlla qaadirun aji attan la ala an yunzila mu wàccee ayatan kawtéef walakin waaye aktarahum gën ja bari ci ñoom laa yaalamuuna xamuñu wa ma min dabbatin amut jenn aji dox filaar di ci suuf wala tairin amul aji naaw yuttirijuy naaw bi jinaaxayhi ak i waggam ilaa umamun lu mooy ñoom ñëpp ay xeet lañu amsaalakum kem yéen ma faratna bàyyiwuñu fil kitaabi ci téere bi min cheyin dara summa yoxcharoon def na fanga leen ilaa rabbihim jëm ci seen borom walladina ñi nga xam ne kaddaboo weddi nañu bi ayatina ci suñu alquran summun ñooñu way tax lañ wa bukmun way luu lañ fi dulimaati kon ña nga ca lëndëm ya lëndëm ak ñàkk dégg ak ñàkk gis dëgg man yasha laahu ku neex na ko yàlla yudlilhu mu réeral ko wa man yasha ku mu neex yajaalhu mu def ko ala siratin mu jaar ci yoon woo xam ne mustaqimin wu ne coow wala kul waxal ne kon araytum moo ndax du ngeen ma solo in ataakum yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen weddi kàtt ni yàlla léegi bu fekkee dikkal na leen aadaabullaahi mbugalam yàlla aw atatkum wala dikkal leen saatu bis penca atadauna ndax kon da ngeen jaamu xayra laay ku may yàllaati in kuntum saadiqin dem wax ngeen dëgg bal lu fi nekk iyaahu yàlla daal tadauna la ñuy ñaan ak di ko jaamu fa yakshifu moom rek moo mën a uññi maa tadauna ilayhi li ngeen di ñaan insha bu ko neexee watan saw na su ngeen tiitee da ngeen dem ba fàttee maa tushrikuun da da ngeen bokkaale ko wala qad arsalnaa yónni nañu ila umamin jëm ci xeet من قبل كل جيتو فاخذناهم يجبلين بالباس اي تو اي وضرائق لور لعلهم نحن يوم يتضرعون يوم نترخلو فلولا اذ جاهم جاي بديك الليل بديك الليلين باسنا سنو ايوا تضرعوا يترخلو ليال ولكن واي قصد نوونا قلوبهم سين قلي وزينا رفتلنا لهم نيالين شيطان ما كانوا لن يكون يعملون جفكو فلما نسوا بني فاتي ما ذكروا اللي عرفنا لينكو بيجي fataanaa ñu ubbi alim ci ñoom waar nañ leen ñu ñu bañ yàlla loolee mu téye leen daf mu li far leen ubbil leen abwaaba kulli cheyin buntab lépp lëf ata isa farixu ba ñu amee xéewal ya ba bég bi maa wootoo ca la joxeef na leen ko axadnaahum ñu jàppaleen baxtatan ci mbetteel fa isaahum ci mbetteel ñoom ñépp nag mublisuuna ñu nekk di way alku wala way wedem fa quti a daggeef dawaabirul qawmi gàtt nit ña alladina ñi nga xam ne dala moo tooñ nañ walhamdulillahi cant ñeel na yàlla rabbil alamin yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi kul waxal ne araaytum ndax du ngeen ma solo is axasa in axasa bu jàppee laahu yàlla samaakum seen nopp yi ba déggatu leen wa absaarakum mu jàpp seen gis yi wa xatama mu linkaañ ala qulubikum seen xol yi ba du ngeen jàppati dara man ilaahun ana jan yàlla xayrullaahi ju ma yàlla ji yaatikum moo leen di indil bii ci dégg ak gis wandur seetal kayfa nu sarrifu ni ñuy soppee aka leerale alaayaati alquran su mahum ñoom topp ñoom yes di foo na ñu ngay dëddu kul waxal araaytakum ndax du ngeen ma solo in ataakum ndem dikkal na leen aadabullahi mbugalam yàlla baxtatan ci mbetteel aw jaaratan wala mu nekk loo xam ne lu bir la hal yoo ko ndax def na alak ilal qawma lu may nit ña a bali mu nañu di way tooñ wa ma nursilu masunoo yónni wala nga ne du nu yónni al mursalina ñuy yónni ña illa mubashirin lu mooy ñu nekk di way bégle wa munzirina ñu nekk di way xupp xuppee fa man amana ku gëm na wa aslaati mu yewenal wala xawfun déet ragal alim ci ñoom wala am den ñoom yaxsanoona ñuy tiit wala dina ñi nga xam ne kaddabu weddi nañu bi ayatina ci suñu alquran yamassuhum dana laal leen ala adabu mbugal bi ma kaanu ci la ñu nekkoon yafsuquuna di génn ko topp xul waxal ne laa aqulu man day duma wax lakum ñeel leen ne indi nekk na fa man xazainullahi man mi yàlla yónni duma wax mukk ne ndam bi yàlla yi mu ngi fi man wala alamu duma wax ne xam naa it alxayba xaybu wala aqulu duma wax lakum ñeel leen ne inni man malakun malaaka laa yii daal waxuma ko xawuma xaybu duma malaaka man dañ maa yónni rek ina tabiu gen may topp illa ma yuuxa lu ma la def na waayu ko ilay jëm ci man kul waxal ne hal yastawi ndax man naa yem al ama aji wal basir agajijis afala tatafakkaruna xanaa du ngeen xalaat wandir waaral beeg alquran la jëne ñi nga xam ne yaxaafuuna danañu ragal an yuxsharu ba fangeefat leen ila rabbihim jëm ci seen borom laysa lahum de di ñeel leen min dooni la dul yàlla waliyun kuy méngoo seen mbir wala shafiun du ñu am kenn ku leen di ramm laallahum ndax ñoom yettaquuna ñu ragal yow ma yónni nag wala tatrud bul dàq la jëne ñi nga xam ne dañuy jaamu rabbahum seen borom bil gadaati ci suba wala ashiya ak ngoon yuridoona ñu bëgg wajahu anam ak yàlla maa alayka déet di war la min xisaabihim min cheyin dara wa ma min xisaabika déet ñu lay xisaabit alayhim di leen war min cheyin tus kon ku nekk jëfam fa tatrudahum soo leen dàqee sabab soosa fa takuna da nga nekk min a daalimina ci way tooñ ya wa kadalika naka noonu fata naa la ñu finnaal mooy nattu baaduhum bi baadin ci ñenn ña li yaqulu ndax ñuy wax naan aulaay ndax yee julit ñi nga xam ne dañoo néew doole te nekk di ay duafa ndax ñii mën na laaw la xéewal yàlla alim ci ñoom min naa suñu diggante alaysa laaw ndax déet yàlla bi alama di xam bi na ci ñu koy sant anaam xam na ñëpp ñi nga xam ne ñoo baax wa isa jaaka ndem dikkal na la alladina ñi nga xam ne yuminuuna dinañu gëm bi ayatina ci suñu alquran bu fekkee ne julit yi ñoo la dikkal faqul waxal ne salaamun jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen kataba bind na yàlla rabbukum seen borom ala nafsi waral boppam rahmata yërmande annahu luy mbir man amila ku jëf na min kum ci yéen soo an lu bon bi jaalatin ànd ak ak réere suma taaba mu tuub min baadihi gannaaw ga wa aslaa mu yewen mu yewenal ba jub fay noo yàlla gafuur na ji baal la ko rahimun aji yëram la ko wa kadalika naka noonu nu fassilu dañuy teqalee alayaati alquran wala tastabina ak di bir sabilul mujrimin yoolab yoonu ña nga xam ne dañuy def bakaar kul waxal ne inni man dey day nuyitu tereef na ma man mi yàlla yónni man tereef nañ ma ana abu damay jaamu la dina ñi nga xam ne te doxoona da ngeen jaamu leen min dooni laay tudd yàlla xul waxal ne laa tabiu man du ma topp awaakum seen bànneex ya ndax su ma ko toppee xad dalaltu réer naa idan boobale wa ma naa déet man min al muhtadina mu bokk ci ñi jub xul waxal ne inni man dey ala bayinati nekk naa ci lu wóor min rab min min rabbi bàyyi ko ci sama borom léegi nag bu fekkee am naa lu wóor lu jógee ci yàlla yéen wa kadabtum bii ngeen weddi ko lu ci des xanaa ma mbugal leen aw ma ko nag maa ngi di nekkul fi man maa tastaajiluuna li ngeen di yàkkamti bii ci moom loolu yàllaa ko yore inil xukmu di rab attee ba kon ñun la nag léegi ñu ne ñu alag la waaye moom def ne alag nag yore wu ma ko maa ngi ko bàyyi ak yàlla inil xukmu illaa lillaahi lu ma ni mu ñeel yàlla yaqusu yàlla mooy nettali alxaq dëgg wa yàlla xayrul fasilina mooy ngeen ji way teqale ñaar ñu xuloo xul waxal ne la waa na indi yàlla xam na ne bu fekkoon nekk na fi man maa tastaajiluuna bii li ngeen di yàkkamti su fekkoon ne mbugal ci sama loxo la nekk ni ngeen ma merloo fekkoon na ma indi ko ba la qudiya atteef alamru mbir ma bay ni sama diggante wa bay na ko mag yéen waaye loolu yàllaa ko moom wallaahu yàlla aalamu moo xam bi daalimina ci way ci way tooñ yi baatab aalamu bu jëmee ci yàlla kenn du ko fire gën a xam ndax yàlla ndax gën a xam ci afala tafdil li muy tekki mooy yéen ñi jàngoon naxu xam ngeen ne afala tafdil mënuñu ko tëgg lu moy ci ñaari mbir dafa am lu mu jagoo morom ma jagoo ko ñu yem ca ba ca kanam kee ëppale kenn ka lenn foo loolu ci la ñuy mën a tëggaafala tafdil yàlla nag amul lu mu yem ak kenn ba am lu ko ci ëppale kon nag aalamu yàlla moo xam rek lañ koy fire waaye kenn du ko fire gën a xam ndax gën a xam kenn kon day mel ni keneen dafa xam mu gën koo xam bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci matu xam-xamu yàlla bi ay mbir a ngi nii yoo xam ne amul kenn ku la ca tane ku ko woote it ne xam na ko booye boo nga dogu ci ne moom nekkul ku ragal yàlla loolu la buur di wax ne wa indahu nekk na fa yàlla mafatixul xaybi caabi yu faddu ya yépp yi ñëwagut yàlla rek ko xam ndax moo yore caabi ja te joxeegu ko moo tax ba laa yaalamu aadu xam ko illaa huwa lu muy moom la nar a ñëw ëllëg yàlla rek ko xam wa yaalamu dina xamit maa fil barri la nekk ci jéeri ji wal baxri géej wa maa tasqatu du rot min waraqatin benn xob illaa yaalamuha lu ma yàlla xam na ko garab yeeg ñax yeg yépp amul benn xob wuy wadd lu ma yàlla xam na ko wala habbatin amul benn pepp bu tëdd fi dulimaatil ardi ci lëndëm ak suuf wala ratbin amul lenn lu tooy wala yabisin du caageen lu wow illa fi kitaabin lu may mu nekk ci téere mu binin bu daa bir wa huwa yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne yatawafaakum dana faat leen bi léeli ci guddi ngeen nelaw mel ni ñu faatu wa yaalamu yàlla xam ne it maa jaraxtum li ngeen di sàkku bi naari ci bëccëg su ma yabaasukum topp mu dekkal leen fiihi ca nelaw ya li yoqdaa ngir mu faj ajalin di boo xam mu saman buñ tudd la ngay nelaw di jóg di nelaw di jóg ba bés nga nelaw doo jógati looloo li yuqdaa ajalin mu saman su ma marjiukum seen delluwaay ilay jëm na ci yàlla su ma yu nabbiukum yàlla moo leen di solo bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon taamaloona di def ko huwa yàlla alqaahiru mu aji not fawqa ibaadihi ca kaw jaamam ya wa yërsul yàlla mooy yónni aleykum ci yéen xafadatan ñoo xam ne dañuy dañu leen di wattu mooy kiraaman kaatibiin wala raqiba ga atiit ataa ñooyu ñoo leen di topp lu ngeen def ñu bind ataa isa jaa ba dikkalee almawtu dee aadakum kenn ci wafat tawaffathu faat ko rusuluna suñ yonente yi mooy malaaka yiñ fi yebal uhum ñoom malaaka yooyu laa yufarrituuna duñu sàggan de bu ñu waxee ne reyal diw du ca teg benn minute ñoom duñu sàggan su ma roddoo toppa delloof leen ilaa yi jëm ci yàlla mawlaaw mooy seen buur alxaqu mooy dëgg alaa dëgg la wa na yàlla alxukmu attee wa huwa yàlla asrawul xaasibiin moo gën a gaaw ci képp kuy calculer machine de xisaab na moo la gën a gaaw ci saasi rek ku nekk jot sa résultat xam fi nga jëm bàyyi na loolu mu ñëw ci feeñu waayu kàttanu yàlla nee na xul waxal ne man yu najjiikum kan moo leen di musal min dulimaatil barri yi ci lëndëmu jéeri ji wal baxri yi ak lëndëma géej gi tadauunahoo ngeen di ko woo tadarruan ngeen di way toroxlu wa xufiyatan ngeen di way waxee ndànk naan ku ci tiit moom kenn don ci jéeri ji wala ci géej gi yaa ngay woo yàlla di waxee ndànk xam da xam ne dégg na la moo tax waxoo ca kaw ñu nga naan layin an jaana ndem musal nanu min haasihi ci jàqare ji la nakunan na kon day dananu nekk min ashakirina ci way sant ya qul waxal ne allahu yàlla yu najiku moo leen di musal min haa ci jàqare wa min kulli karbin ak bépp jàqare su ma antum topp yéen nag bu leen yàlla musalee ba pare ngeen ne yàlla ak darajey diw wala barkib diw na ngeen di ci boole keneen gannaaw bu mu leen musalee tushrikoona ngeen boole keneen ci mbir mooma mu bokk ca qul yàlla القادر ممرك ما يجي أتن على أن يبعث ميوني عليكم تيين عذابا بغل من فوقكم كم مبايكو تسين كو أو من تحت أرجلكم ولا مبايكو تسين سوفي تنك أو يلبسكم ولا مجاخسلين شيعا نجد أي كوري ويديقا تيموس بعضهم لنج بعضكم لنجيين بعض بعض ay ñenn ña undur seetal kayfa nu sarrifu ni nuy teqalee alayaati alquran laala laallahum ndax ñoom rek yëf koo nañu dégg ko wakkat daba weddina bii ci alquran qawmuka saw nit yow yenente bi wa wote alquran ji alxaqu mooy dëgg xul waxal ne lastu aleykum déet man day ma nekk bi wakiilin di koo xam ne dañ ko ñuy sukkandikoo la man day nekk ma wakiil koo xam ne daal damay contrôler seeni mbir man sama yoon nekku ci damay wax rek li yàlla wax ku bu yeboo mu bàyyi waaye nekkuma seen wakiil li kulli nabayin ñeel na bi ba solo mustaqarun suxuwaay lu waay def rek am na fu ñu ko bind fa sawfa ta'lamuuna te ngeen a xam benn bés dana ñëw bàyyi na loolu mu ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ñooy reetaan alquran di ko yejji yàlla nag ne boo gisee ku gëmul alquran ku gëmul dekki ndax nit ki bu gëmé alquran dana am iman dana julli dana wor dana moyendiku lu bon dana def aw yiw bu fekke nak li alquran wax yeb gëmuko di waxtane lenen di yejji alquran je kom ni nuy def rek bo gisee ñu mel nonu sama borom ne na nga leen jox gannaaw féeg ñu ngay waxtaane yeneen ya wa iza raayta boo gisee la jine ñi nga xam ne yaxuuduuna ñi ngay xuus fi ayaatinaa ci suñu alquran di ko weddi faarid yow dëddul anum ci ñoom xataa yaxuudoo lu may ba tañu xuusee fi hadisin ci waxtaan xayrihi waduwut weddi alquran léegi nag xamoo ko woon ba nga toog ak ñoom wala fàtte nga ko fay maa yun si ndem fàttee loo na la cheytaan ba nga toog fa boo ko xamee rek fala taqaud bul toogati baada dikra ganaaw fàttaliku ma al qawmi ànd ak nit ña addaalimina ñi di way tooñ wa ma ala alladina warun ña nga xam ne yettaquuna danañu ragal min hisaabim seen hisaab warul leen ca min cheyin dara nañ baag yàlla walakin waaye kuy waaraate moom zikra ak waar la laallahum ndax ñoom rek yettaquuna ñu ragal wa zari bayil lazina ñi nga xam ne ittaxasoo jàpp nañ diinahum si seen diine laayiban muy foo walaa wan ak caaxaan koo xam ne diine mi yëpp ay cérémonie rek la ak i karab-karab muy laayiban wa laawan ittaxasoo diinahum laayiban wa laawan mu ne ba maag ñooñu te nga dem toog fee yow yonent bi te ba maag ñooñu rek wa xarathum war na leen kon alxayaatu dunya àddina wa dakkir na nga waar bi ak alquran na nga leen waar ak alquran antub sala nga wax leen ne loolu mooy ba ñu ba ñu tëjat nafsun bakkan ci àllaaxira bi ma kasabat ngir li mu fàggu ñu ne walla bakkan boo xam ne day dem ci àllaaxira ñu tëj ko ngir li mu fàggu woon ci àddina na nga waar nit ñi ci àddina ñu xam ne bi ma kasabat laysa lahaa di ñeel ko min dooni laay ku dul yàlla waliyun ku méngoo mbiram wala shafiun du caage naa ji ramm wa in taadil bu fekkee ne da ngaa maandoloo kulla laa yuxad defut jàpp mi moom ku yaakaar loolu kon booye boo xam ne sa yaakaar tas na ndax mu ne bu fekkee ki nga yaakaaroon dafa ñëw naan yàlla kii ku baax la ku jub la di la maandool tam mu ne yàlla ne man du jël jooju wax wa in taadil kulla adlin la yuxadu minha ulaayika ñooñ lazina ñooñ ñi nga xam ne ubliso alageef na leen bi ma kasabu ngir lu ñu fàggu lawum ñee na leen sharabun ak naan min xamimin ci ndox mu tàng wa adabun ak mbugal alimun mu daa metti bi ma kaanoo ci liñ nekk ko lislaam nag ni mu mel la mel shirku muy jaamu yàlla itam ni mu mel la mel koo xam ne nag dangay ngay jaamu xëram wala da ngay sàkkal yàlla bokkaale sukuraat bi nga ci nekkee bi roxo ngay dem ci yàlla amuloo imaan imaan bi ñàkk nga ko gëm nga keneen wala leneen lu duhut yàlla kooka su malaaka yi ñëwee bu ñu jëlee ruuxu ga dañ koy fiqa ak doole su génnee ñu jëm ak moom ci asamaan yi ci kaw asamaan bu ñu ñëw day am xet gu naqari ñu def ko ci malaan mu kawar gu ñaas la fu ñu ñëw ñu naan mais moo xet gu bon googu fan la jóge ñu naan diw doomi diw la gëmuloon yàlla noonu la ñuy dem balaañ leen a ubbil asamaan ñu sonn bu ñu demee ba jege illiyin ci asamaan sa ca kaw ñu bañ leen a ubbil comme ni ko alquran waxee duñ leen ubbil abwaabu sama xatta yeli jël jamalo fi samil xiyaat ñu bañ a ubbi ñu nekkoon kat fii du jëmukaay gii ruuxu jëmut ci kaw nañ ko delloo ci suuf ñu jëmee ko si jiin bu ñu ñëwee bu ñu ko jëmee ci suuf nag malaaka dootu ko indi dañ koy sànnee ci kaw rek bàyyi ko forooga mën a daanu rek mu daanu fa loolu la alquran di wax naan këllazi bu mel ni ki nga xam ne istaawaru shayatin buur ne qul waxal ne ana ducu ndax dañuy jaamu min dooni laay lu dul yàlla maa loo xam ne laa naa du jëriññu wala yaduruna du lorñu wa nu raddu fi dellooñu ala naa ci suñu gannaaw baadis hadana allahu gannaaw bu nu yàlla jubalee këllazi mu mel ni ki nga xam ne istawat hu nar mel na ko cheyatanu ay cheytaane filaar di ci suuf xayraana muy aji gëlëm loo ñeel na ko asxaabun ay xarit ak i àndaale yadauna hoo ña ngi koy woo ilal huda jëm ci njub ma waaye du leen dégg itinaa ñu naan ko indil ñu kul waxal ne inna hudallaay naka njubam yàlla huwa moom alhuda mooy njub omir naa digaleef nañu li nuslima ngir nuy jébbalu ci kan لرب العالمين تي بروم بنده في وانا قيم اجد نوي تخاول صلاه جولي وتقوه رغلن يال وهو يال الذي موي بور بيغا خامني تو شرونا دينا فانغلين الى جمتي هو جمتي يال هو يال allazi mooy bur bi nga xam ne xalaqa bind na mu asamawaati asamaan wala dak suuf bila àq ci dëgg wa yow ma yaquul bés muy wax naan kun amal rek fa yakkoon muy daal di nekk xawlu waxam jooju alàq muy dëgg wala woo ñeel na ko almulku nguur gi yow ma yéen fa ko bés ba dee fi wal fi sóori ci bufta bi aalimul xëy bi ki nga xam ne moo xam lu faddu wa shahadate lu teew wa huwa yàlla alaa ki mooy aji xarala alxabiir mooy aji dañ kumpa yente al ibrahima naan la bàyyee jaamu xeram ibrahima daf na yaayam yaay yow kuy sa bu kuy sa yàlla mu ne ko sa baay mu ne sama baay nag kuy yàlla am mu ne ko namrud mu ne waaw namrud nag moom kuy yàlla am kuy boromam mune a ah, dom, doom rey nga gemign di namrod moy yalla moom amut borom moy borom ñep ibrahima dem ci bayam ne ko yow kuy sa borom mu ne ko namrod mu ne namrod kuy boromam mu ne ah bu ma wax namrod moy yalla mu ne ku ko bind mu ne ko bul ma indil wax Ibrahima ne yaa bàyyi gis nga Namrod du yàlla am na ay buxaaba yu ko féete kaw buxaaba yi am na ay xiram yu leen féete kaw te yooyu yëpp du yàlla man daal xamal nañ ma ku yàlla bëggoon naa nga topp ma ma jubal la ba nga xam yàlla baayam daal di ko ne ko soo bàyyiwut suñu yàlla yi ngay ŋàññ daan la jami xeer ba nga dee wala ñu génnee la dëkk bi Ibrahima ne bàyyi kon man maa ngi génn dëkk bi dem ci sama borom ragal naa dana ma jubal Ibrahima yàlla nga koy yar nag di ko xëcc jëme ci boppam ibraahima dem ci àll ba toog ci genn ndend ba bi soog ibrahima di wéetal yàlla di xalaat ci laawatu yàlla di ca xalaat di ca xalaat ba mu guddi biddiw yi daldi di feq mu ne ah yàlla nga de couleur kii day mooy yàlla mu di ko xool biddiw bi suux ibrahima ne déedéet bëgguma yàlla ji suux de weer wi fekk mu ne yàllaa nga ne weer wi dem ba suux mu ne ndax am damaa nar a réer malakoot yi maa ngi leen di topp rek waaye ndeke kenn du ci yàlla su ma yàlla jubbantiwut gaaw day xëcc ma ma jëm ci boppam dana réer ndax maa ngi wër maa ngi toll ci fatratu fatratul majzub xëcc nañ ma maa ngi ñëw waaye xaw ma fu ma jëm कपना केंद्र की दुयाल मतलब की दुयाल बथे जनता दिस संकरण मुने आ कील डाकी मोग नरे बमुदे में नक बजनता दिस संक मुने की मोग नरे जनता भाई सोनक मुराली ने आ लिमरों ने उद्जित ना को देखे लिप लुभिन्या उलुमुरे रे इधना जेह लिप लुलेर dana suux lépp lu fi am dana ñàkk yàlla rek fi nekk te du fi jógee ndax yépp ci malakóot dafay ñëw waaye day dem yàlla rek kiy dem mu daal di yegg ci boromam loolay nettali ne wa id qaala ibrahim li abihi nee nañ ibrahim moom la ñuy wax xalilur rahman mooy bàyyi ismail mooy mami arab yi abul ambiya jalaale nana nee na nana saawi azara jurul ibrahima bàyyi taxam la ndax bàyyi taxam la bàyyam fekk na waxtu wi dee na nee li tax loolu bu fekkoon ne la dafa naan rekk baayam waaye baayam ba diw kon baay bu ndaw la waaye juru loola mooy tegtalam waaye mu fassiroona yi ñoom dañoo yaakaar ne azara atfu bayaan la ci abihi wala badal te xam nañ ne badal ak at fu bayaan dañoo niroo dafay nangoo wutu mubdalu min te wax ji du yàqu kon nag ndax man manoon ngaa wax ne wa id qaala ibrahim li azara koyit mu baax nga dindi abihi kon nag baayam la ibrahima wax baayam ja azara ne ko atataxidu ndax da ngay jàpp asnaaman ay xëram aalihatan ñu di yàlla inni man araaka gis naa la wa qawmaka ak saw nit fi dalaalin nga nekk ci réer mu beneen guddaay ji wa kadalika naka noonu nuru yàlla waneef ibrahim malakuutu samawaati malakuutu asamaan wala ardeeg suuf wala yàkkoona ngir mu nekk minal muuqinina ci way wóolu ya yàlla balaa nga am yaqiin ci moom ba ko xamee xam nga ne yàlla moom ñëpp xam nañ ko waaye euh, daf leen a wóorut euh, yaqin googu nag lañuy wut moo tax mu ne la yakuna min al muqinin amut kenn kuy wuti yàlla tëju sori wéet xalaat sella ba yegg ci yàllit yàlla ba gis lu fi nekk loon boo ji yeggee ci yàllit li fi nekkoon rek fi nekk yaqin nga amutoon kon yàlla ñëpp xam nañ ko dañ koo gëmut dañoo gëmut ne li ñu xam mooy yàlla loolu moo tax mu ne li yakuuna min al muuqinin dañoo bëgg mu am yaqin ci lim xamoon ne lii la waaye yàlla moom ni meloon rek la mel boo ci yeggee it doo fi fekkaat leneen li fi newoon a fi nekk yaqin jooju mooy def dañoo bëgg nag ibrahima moom li yakuuna min al muuqinin ne lim xamoon la falama janna ba lëndamee alay ci moom laylu guddi raa mu gis kaw ka ban aw bidiw xaala mu ne haza kii rabbi mooy sama borom فلama afalla ba afala ba mu suuxee qaala mu ne laa uxibu man day bëgguma alaafilina way suux ya falamaa raa ba mu gisee alqamara weer wa baasiqan muy aji feq qaala mu ne haza kii rabbi mooy sama borom falamaa afala ba mu suuxee qaala mu ne lay lam yahdinii ndem jubaluma rabbi sama borom laa kunan na danaa nekk minal qawmi ci nit ñi addaali nañuy wëññi di way réer falama raa ba mu gisee achamsa jant ba baziqatan muy aji muy aji mu ne haza kii rabbi mooy sama borom kii akbaru moo gën a màgg arifona yi ne nañu kinaaya la waaye bi mu jant ba fenk rek dafa tombeek mu yegg ci boromam ñu ne ndax falama raa shamsa baziqatan jant jigéen la ndax arab am nañ baat yoo xam ne jigéen lay doon faw te du nekk jigéen mooy ardun samaun naalun shamsun rijlun riixun jaximun xawsun xarbun naaru yi baat jigéen la ñuy doon faw te amuñu jigéen am na yeneen baat yoo xam ne góor lay doon fawwa te amuñu ngóor masjidun mushafun xadisun xaatimun sayfun sulusun waqtun yi góor lay doon fawwa lu bokku ci yele bokku ci yii nag ci baatu arab boo koy làkk boo ñëwee nu la neex nga def ko su bokkee ci yee jigéen la fawwa bu bokkee ci yii góor la fawwa bu bokk ci ñaari xaaj xaaj yi nag nu la neex def moo tax kalimatu tariq léeg-léeg nga gis ñu ne ñu ne hazihi tariq léeg-léeg ñu ne haza tariq lépp day dal di baax lu tax ndax bokku ci ñii bokku ci ñee kon nag fa kamaxtaaru loo ci tànn lay def kon nag ñu ne jënt bokk na ci yéen nekkoon jigéen ndax ne na baziqatan lu tax nag mu ne haza qaala haza rabbi waxut hazihi rabbi gaa yi ne kon bi jënt bi fenkee rek dafa yëgg ci yàlla limu mu modi moo di laahootiyatu jalla jalaluhu la janoog motax muné xol jantane xool jant haza rabbi wa hazihi dal dina ne haza akbar wa hazihi akbar wala kubra falama falat waye ba jant ba sooyee nak legi guddi gi ñewna ñu ne kon lu ci indi jant bu so ñu ne jant bu so da dafay indi guddi guddi ak ñak la leer nekkutu ci ci ak moo jiitu am te nit balaa àgg ci yàlla fokk mu ñàkk moo tax mu ne fa la maa falat ba jant ba suuxee nag lépp dig lëndëm dal di niroo nekk lenn xaala mu ne yaa xaw mi yéen sama nit inni man day bariw naa ji dañ laa bi maa tushrikuuna ci la da ngeen bokkaale ko inni man wajaatu jubali naa wajee sama kanam li lesi ci yàlla mi nga xam ne fatara bind na mu sama waati asamaan wala rek suuf xanifan mu yaa ji jëng wali lépp lu jëng wa maa naa den man minal mushrikiin ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale daggesante naag moom xaw ma woon itam ña xaala mu ne leen atuhaajuna nii ndax da ngeen di daggesanteeg man si laay yàlla waqad hadaani ti jubal na ma wala xaafu man dey ragalu ma maa tushrikuuna bihi li ngeen di bokkaale ilaan yashaa lu may ba ta neexee rabbi sama borom cheyan dara wasiya a na rabbi yàlla kullu cheyin lépp la bi ilman ci xam-xam afala tadakkaroona na du ngeen waaru wa kayfa axaafu naka laay ragalee maa ashraktum li ngeen di bokkaale mu di garab yi ngeen di jaamu wala taxaafoona yéen nag ragalu leen ni annakum yéen asraktum bokkaale ngeen billaay ak yàlla maa loo xam ne lam yunazil wàccew bii cam aleykum ci yéen sultaanu wenn lay fa yil fariqayni ana kan ci ñaari kuré yi ahaqu moo gën a eyoo bil am ni ci kóolutee in kuntum dem nekk ngeen taalamuuna di xam la si ñi nga xam ne amonoo gëm nañ walam yel bi soo te jaxasewuñ imaanum seen gëm bi dul min ci tooñ te te ulaayika ñooñu lawum ñeel na leen ala am nu kóolutee waxum ñoom moo te doona way jublañ wa tilka loolu xujjatunaa suñu lay la ñun yàlla aatay naa jox nañ ko ibrahim ala qawmi ci nitam ña narfa noo yëkkati darajaati man na sha darajay ku nu neex inna rabba nak sa borom hakimun aji xarala la yàlla alimun aji aji xam la wa am naa may nañ la wa ñeel ibrahima isaaqa ak yaquba ku leen képp ci ñooñu aday naa jubal nañ ko wa nooxan ñu jox ko noo mu bokk ci sëtam xaday naa jubal nañ ko min qablu ji bu yàgg mooy cig jëkk wa min duriyatihi bokk na ci sëtam ya daawud ak suleymaan ak ayub yusuf musa haarun kadalika naka noonu na jisi la ñuy fayee almuhsinin ñi rafetal liñ leen di fayee mooy day am ci seen ngir rafetal ni ñoom loolu loo am solo la wa zakariya ñu jox ko zakariya ak yahya isa كل من الصالحين اجل اسماعيل إليسع يونس لوط نيب مولين جور أي جتم لين وكل من كيف جنيانو فضلنا جنال نلين على العالمين كي بندي ومن أبايم سين باي ودرياتي مكتين سين دومية وإخواني مكتين بقية وتبيناهم نيو تنلين وهاديناهم نيو جبلين إلى صراط يمشي يون مستقيم من الشوة ذلك لول ود الله يمين جبم يال يادي مين جبل بيجمهم من شاهو كونيخ من عبادي تجامو ولو أشركوا سنو بقالي képp ku ci bokkaale rek lépp li nga liggéeyoon yàqu na laa bita sippeeku na anum ci ñoom maakaana la ñu nekkoon yaamaloon def ko ulaayika ñooñ la si nga xam ne aati naam jox nañ leen alkitaaba téere wal xukmaat attee wa nubuwata ak yeneen tëgga wayen yakfur ndem weddina bihaa ci yenente gi hawlaay ñii faqad wakkal naa wakkil nañ bihaa ci nubuwa ga xawma nit ñoo xam ne lay soo bihaa bi kaafirin duñ ko weddi mukk ulaayika ñooñ la si ne ñooy ñi nga xam ne xadalaahu juba na leen yàlla faqtadi royal bi hu daawam seen njumma kul waxal ne laa asalukum su fekkee topp leen ma may dey laajuma leen ali ci topp gi ajaran benn tool bu ngeen may bayal wala lenn lu ngeen may gàddul laajuma ko ci de benn yool dama ne rek njummaa ngi ku man topp buñ paree ku nekk na dem yoonam in huwa deen moom ila dikra ak waar la moom alquran lil alamina ñeel bindeef yi a diine lépp loo ci laxas rek day tax nit ñi duñ ko topp nañu wootee jëmee ci diine te buñ ci laxas dara buur ne wa ma qadarullah dañoo dañoo màggalul yàlla rek xaq qadrihi dëgg-dëggi dara jaam is qaalu waxtu wu ñuy wax naan ma anzallah wàccewut yàlla ala bashirin ci mel ni mbindeef min ci dara kul waxal ne man anzala ma wàccee kon alkitaaba téere ba lasi bi nga xam ne jaa bi Moussa indi woon na ko nooran mu dig leer wa hudan muy njub li naa si ñeel nit ñi te jaxaloonoo ngeen xotti ko ba def ko xaraatis ay kayit tubdunaa ngeen di ko feeñal wa tuxfuuna waaye nëbba ngeen katiran lu bari ci moom wa ulimtum xamaleef leen maa lam taalamu lu ngeen xamutoon antum yéen wala baawkum du caageen seen baay xul waxal ne allahu yàlla rek moo fi nekk su ma zarum nga bàyyi ñi ci des nag yalaaboona ñu fo fi xawdihim te seen te seen nuur ga waasa lii kitaabun téere la ansal naa wàccee nañ ko mubaarakun luñ barkeel la musaddiqun aji dëggal la la si li nga xam ne bay na yeddi yi moo ko jiite li tunsara ngir nga waar umul qura nday dëkk ba wa man aw laag li ko wër wala si ne ñi nga xam ne yow mi noon a ñooy gëm bil axira yow mi noon a ñooy gëm bii ci alquran wa yuxaafiduuna ñooy wattu ala salaatihim seeni seeni julli wa man adlamu kan moo gën a tooñ mi man iftara kuy duudal alallaahi waral yàlla kadiban ay nar aw qaala wala ana kan moo dàqa fen ku toog ba naan uxiya ilayya man de dañuy wàccee ci man alquran wala nga naan yàlla ma yónni te alquran ne walam yuxa wallahi wax yoofut ilay jëm ci moom cheyun tus dafay wax rek wa man qaala ku ku dem bay wax naan sa unzilu mën naa wàcce misla ma anzalallahu kem li yàlla wàccee ci alquran ku dem ba yaakaar ne mën ngaa indi sa alquran walaw tara waaye boo gisoon li gën a bon loolu moo di ni ñi ñooñu li ñuy bon bon am na lu ko bu gën a bon mooy la leen yàllay fay مولان إذ الظالمون ويتون يويو في غمرات الموت بني نكيت لغم دي والملائكة ملاكي باسطو أيديهم يتلل سن لخيا أنا خرجو جن لين أنفسكم سن روحك اليوم تري تجزونا ديفنا فايلين عذاب الهوني بغلم دايدي بما كنتم تلنجن نكون تقولون دي وقو على لا يورا ليال غير الحق لدول دق وكنتم نكون نكون تتكبرون دي ري ريلو أنا آياتي تكاوتي فميا لغنك bàmmeel a ngoog dee a ngoog barsaq ngoog ñëw ngeen fi nag ana ki ngeen yaakaaroon ana fi ngeen làqu woon laqad jiitu moo naa dikkal ngeen ñu fii tey furaada kenn kenn rek kama xalaqnaakum ñi ma leen bindee woon awala maratin ci yoon wu jëkk wa wa taraktum bàyyi ngeen maa xawal naakum lépp lu ñu leen joxoon caadina bàyyi ngeen ko war a doorikum seen gannaaw yi gannaaw wa ma nara ñun dey gisuñu maakum ànd ak yéen fii ci bameel bi shifaaukum ñi leen di rammu ñëwuñu ànd ak yéen fii de li si ne nga xam ne zaamtum jortu woon ngeen ne àndahum ñoom fiikum ci yéen suraka ñoo di way ramu laqad taqataa dagg na baynakum seen digganteeg ñoom wa dalla réer na an kum walis leen maa ko num la ngeen nekkoon tu sax muuna di joortu ko ak di foog koog di ko deflee inna laa yàlla nag mooy borom kàttan li faaliqul habbi yàlla moo xar sepp baral bi ci saxal gàncax amul kenn koo xam ne sa baay wala sa maam wala ki nga woolu moo saxal gàncax gi man yàlla rek maa xar sepp génnee ci gàncax wan na waa ak ab mooy saal ba yuxriji yàlla mooy génne alxayya lu dund minal mayiti ci lu dee wa muxrijil mayiti yàlla mooy génne lu dee minal mayiti ci lu dund zalikum ki def loolu laahu mooy yàlla yéen nag faanaatu fakuun ana sandees fekk leen ba toppi leen ba ngeen di jaamu ku dul yàlla moomu faaliqul isbaaxi yàlla moo xar suba daal di génnee xar guddi génnee ci suba wa jaala mu def layla guddi sakkanan muy waay wa chamsa mu def jant wal xamar ak weer xusbaanan ngeen di ci mën a calcul guddeeg bëccëg zalika loolu taqdirul azizi mooy dogalab aji am kattan alaali mu ku daay ji xam huwa yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne jaala def na lakum ñeel leen nu jëma biddiw ya li taata doo ngir ngeen di jubee biyaa ci biddiw yi fi zulimaatil barri ci lëndëm ak jéeri ji wal baxri géej gi bu ngeen nawee ci avion di xool biddiw yi bu fekkee ne da nekk ci géej biddiw yi di leen gindi xat fasal naa ñu ndey biral nañ alayaati alquran li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yàlla moo ne danañ ko xam woo yàlla allazi mooy buur bi nga buur bi nga xam ne anshaakum sos na mu leen mi nafsin ngeen bàyyee ko ci bakkan waaye datin ba di benn wa mustaqarun am na fa saxuwaay wa mustawdaun am na denc waay mustaqar mooy waaye bi ci roxo muy jigéen ji mustawda mooy saxuwaay bi ci rooxu mi jigéen ji mustaqar mooy sax saxuwaay ci ndigal ku góor ki xat fasal naa biral nañ alaayaati alquran li qawmin ñeel ni ñoo xam ne yafqahuna danañ ko dégg wa yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne ansala wàccee na mi ne samaay ci asamaan maa ndox faaxarañ naa ñu génnee bi ca gàncax ga nabaati kulli shay'in bii ca ndox ma nabaati kulli shay'in gàncax lépp lëf bu tawee rek mu daldi sax faaxarañ naa ñu génnee mi ne ca moom xadiran ñax mu tooy na tax mooy lu tooy nuxriju ñu génne minu ci moom xabban ay pepp mutaraakiman yoo xam ne dañuy rankalikoo wa min a naxli ak tàndarma nu génne ko ci wa min taliiha ca faccitam ma xinwaanun ay cëgg daaniyatun yu jege suuf wa janaatin ak i tool min anabin ci raisin wa zaytun ak oliw wa rumaan ak granat mutashabihan mu niroo mu niroo ak neexaay wa xayru mutashabihin léeg-léeg du niroo ni muy neex rek bii day neex rek xaw a weex bii xaw a forox bii neex rek saf suukar unzuroo seet leen ila tamari yi ca meññetam ma isa asmara bu meññee waye ni iite muy ñoral ko kan mooy indi suukar di ko ci def day meññ rek bu meññee day wex xat ba yàgg rek mu neex daal di ñu ne ñor na anakana ko suukar indi fi zalikum nakaa ji nekk li ci loolu laayatin kawtéef la li xawmin ñeel nit ñoo xam ne yow mi noonu dinañu gëm même suukar biñ naan suukar sax matière première bi ci yàlla la jógee ndax foog ñu jëlee ko ci betra bi wala ñu jëlee ko ci ñax mi wala ci gàttax gi matière première bi tax muy neex loola jógewut ci kenn ci yàlla lay jógee ñu composé def ko yeneen yàlla ne loolu man rek maa koy def kon nag loolu man nga cee xalaat ba xam ne kooku mooy yàlla wa jaaloo def nañ lillaahi ñeel yàlla suraka al jinni bokkaaleeg jinne yi wa xalaqahum bind na mu leen wa xalaqoo ñu sos la wa ñeel yàlla bani naay doom yu góor wa banaatin ak doom yi ak doom yu jigéen मला काही ñooy doomu jigéen yàlla jinne yi ñooy doomi góori yàlla yi bi rey di ilmin loolu nag dañ ko wax rek waaye amuñ ci benn xam-xam subhanahu te la ñeel na yàlla wa taala jomb na ama yushrikuuna yaa ama yasifuun la ñuy melal ci seen i gémmiñ naan yàlla am na doom yàlla kay badi wa samawaati mooy ki fent asamaan wala rek suuf ana yakunu fan lay tukkee lawoo ñeel yàlla wala dun doom waram takkun ci nekk lawoo ñeel ko saahibatun jabar wa xalaqa yàlla bind na waaye jurut kulli shay'in lépp la wa yàlla alimun aji xam la bi kulli shay'in lépp la zalik malikum kooku nga xam ne moo bind te jurul allahuma yàlla rabbukum mooy seen borom laa ilaa di benn buur ilaa walu may moom xaaliqu kulli shay'in moo bind lu nekk faabuduhu jaamu leen ko woo yàlla moom wakilun mooy ay mooy aji contrôlé ala kulli seen ci lépp lëf laa tudriko mënul yëg si ci moom nag alab saaru bët ya waxuwa yàlla tudriko mooy jot alab saara gis ya waxuwa yàlla latifu mooy aji ñëwetee alxabir yàlla mooy aji dañ kumpa lépp rek da lépp rek xam na ko dara ump ko xat jaakum dikkal na leen basaayiru ay lay yu leer من ربكم نباي كو سي سن بوروم فمن ابصر كو جيسنا فلي نفسي بوفم لا كو ديف واي ومن عمي كو سل ما كان عليها فعليها بوفم لا كو تك وما انا دين من بحفيظ ما اجي وتو عليكم تي وكذلك نكنون نصرف لني برلي الايات القران وليقولوا دا ني وخنا درستا جانغا ولي lu ba yina ndowoo danañ ko biral xaw min ñeen ñoo xam ne yàlla mën a danañ ko xam da nga ko jàng biral ko ñoo xam ne ñoom danañ ko xam ittabi toppal maa waxiya laa wax yow na ko ilayka jëm ci yow min rabbika bàyyi ko ci sa borom laa ilaa dit benn buur ilaa walu mooy moom waarit na nga dëddu anil mushrikin wali si yéefér yi walaw sha allah bu neexoon yàlla ma ashrako duñu bokkaale wa ma jaal naaka defuñ la xafidan nga yaay ji wattu alim ci ñoom wa ma anta déet yow bi wakkilin nga di ko ñu sukkandikoo alim ci ñoom wala tasabbu alladina yad'una min dunillah Quraysh dañoo dem ci Abu Taalib ne ko daal sonn nanu sa doom ji Muhammad ŋàññe na suñu yàlla yi ŋàññe na suñu yàlli bàyyi Abu Bakarin Sadiq ànd naag baayam ba ci xiram ba Abu Quxaafata bàyyi ji ne ko Babacar kii mooy sa yàlla bàyyi ko fa wan ko gannaaw Babacar taxaw ba yàgg ne kii mooy sama yàlla mu ne waaw Babacar ne xëram bi yàlla xiif naa kenn tontuwu ko mu ne yàlla mar naa kenn tontuwu ko mu yàlla rafle naa amul dara mu jëlu xeer dóor ci kanamu yàlla gi yàlla ji fay wut mu ne accam ji yàlla mënul boppam dara bàyyi ji dellu nag téye ci loxo bi fépp ko dóor ko ne ko da sob balaa ngaa toog yàlla yi alag la boobu fekk na Babacar yonent bi lay àndal guddeeg bëccëg yónnee guñu ko waaye duñ jaamu xiram ñoom ñaar booba lañ xamoon ne am na fu mu nar a jaar léegi nag biñ yónnee yonent bi yonent bi ŋàññi seen xerem yooyu Quraysh def délégation ñëw ci Abu Talib ne ko yaay sunu mag yaay sangu mag tey ku ñu fonk nga ci ñun dañoo bëgg nga dox suñu digganteeg kile ŋàññe na suñu yàlla yi xas suñu bàyyi ayibal ko soo ko deful nag na nga na nga jóg suñu digganteeg moom nu rey ko wala mu rey nu rek fekk na am na ci saxaaba yi ñu daan ŋàññ yàlla yi di leen saaga ñu ne léegi nag bu ngeen saagaa suñu xëram ñu ne ñu saaga seen yàlla alquran nag ne yéen jullit ñi yéen bu leen saaga xëram ndax bu ngeen ko defee ñoom danañu saaga yàlla te fekk xamuñ ci dara mu ne wala tasabbu bu leen ŋàññ la dina yàlla ya nga xam ne yad'una danañ jaamu leen min dooni laay ci duñu yàlla su ngeen ko defee fa yesta boo danañu ŋàññ laa yàlla adwan cig noonee bi xayri ilmin ci dul benn xam-xam te dalika nak noonu zayet naa lañu rafetal li kulli ummatin ñeel bépp xeet amalum seen jëf xeet wu nekk la ñu nekk la yaakaar ne moo gën suma marjahum seen delluwaay ila rabbihim jëm na ci seen borom fa yu nabbiwum musala leen bi ma kaanoo ci la ñu nekkoon yaamaloona def ko waa samoo géñ nañ bilaay ci yàlla ay aymaanihim dëgg dëgg seen i ngéñ naan layin jaathum ndem dikkal na leen aayatan kaw teef bu wane ne ki yàllaa ko yónni la yuminun na danañu gëm biyaa ci moom xul waxal ne innamal ayaatu naka kaw teef nag moom indalaay fa yàlla la nekk wa maa yushirakum xamalul leen ne annaha naka kaw teef isa jaat bu dikkee it laa yuminuna duñu gëm wa nuqallibu ñun ñooy walbati afidatum seen xol ya wa absaarahum ak seen bët ya ak seen gis ya kama lam yuminoo noonu ñu meloon ba gëmuñu bii ci alquran aw wala marratin ci yoon wu jëkk wi noonu la ñuy wéy du ñu gëm wa nasaraw ñu bàyyi leen ci tuxyaanim ci seen beew ga yaamoo na ñuy déng-déng yi di dem ak a dikk sadaqallahu al-azim balaga rasul karim wa nahnu ala qala rabbuna wa xayr allahumma ansurna bi haqqi alquran alkarim allahumma astur uyubana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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة عبد الله بن عباس radiallahu anhu nee na mbooloo mu jóge ci kuffaaru makka muy quraysh dañu ñëw ci yonent ko soo ñu wonoon malaaka yi ba ñoom ñu mën a seede ne yàlla nangu ko boo mënul loolu nga dekkal suñu maam yi ñu laaj leen ndax li ngay wax dëgg la soo mënul loolu nga indi yàlla ñu jàkkarloog moom kon ñu xam ne wax nga dëgg waaye bu loolu amul daal du nu gëm ne yow moo la yën buur ne walaw ànd naa donte naka nun nazal naa wàccee ci ñoom almalaikata malaaka ya wa kallamahum te waxeek ñoom almawta way deeya wa xachar naa ñu fanga ci ñoom kullu cheyin lépp la ku balan muy aji jàkkarloog ñoom boyit maakaanu duñu nekk li yuminuu di illa an yasha allahu lu may mu neex yàlla walakin waaye aktarum gën ja bëri seen yajhaluuna danañu réere wakadalika naka noonu jaal naa la ñu mujjal li kulli nabiyin ñeel bépp yonent àdduwan ay noon shayaatinal insi seytaane bu bàyyeekoo ci nit wal jinneeg jinni yooxii dana waxyu baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ca ñenn ña zuxrufal qawli wax ji ñu rafetal ca kaw te la ca biir baaxul xuruuran ngir war walaw shaa su neexoon rabbuka sa borom maa faaluhu deftiñu ko farhum bàyyi leen wa maa yafturoon ak duudal ko yàlla wali tasxaa ak di xerawlu mooy déglu af idatu lazina xoli ñi nga xam ne laa yuminuna duñu gëm ilayi ci moom bil axirati ci àlaxira wali yardawu ak nañu gërëm loolu wali yaqtarifoo nañu sàkku maahum laa ñoom na way sàkku lañ ko rek te bàyyi ak borom bi moom it buñ dajeeg moom mu def li nga xam ne moo ko soob ci ñoom bàyyi na loolu léegi cëri baa ngi seedeel yonent bi ne ñaari mbir mbir mu jëkk mi moo dina alquraanul karim mooy kawtéef buy des fii ba yawmal qiyaama ak itam yonent bi lépp lu mu wax jëlee ko fa yàlla loola dëgg la ñaareel ba mooy alul kitaab ñoom ci seen bopp seedal nañ yenente bi ne aji dëggu la moom lay wax naan afa abri ndax damay sàkku xayrallaahi lu ma yàlla xakaman muy aji attee sama digg ak yéen wa huwa te yàlla alladi mooy buur bi nga xam ne anzala wàccee na ilaykum ci yéen alkitaaba téere ba mufassalan mu di lu ñu teqale wala dina ñi nga xam ne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere yaalamuuna danañu xam ne annahu naka bi téere munazzalun lu ñu wàccee la min rabbika mu bàyyee ko ci sa borom bil xaq ci dëgg fala takunanna bul nekk min almumtarina ci way sikk ya wa tamat man kalimatu kalimatu rabbika baati sa borom te moo di ji sidqan ci dëgg wa adlan ak ak maando laa mubaddila déet aji soppeeti li kalimaati yi ci baat yàlla wa huwa yàlla asamiu mooy aji dégg alaalimu yàlla mooy aji xam léegi nag sa digg ak mushrikoona yi ak seen xëram yi ak liñ leen di rendil bu fekkee topp nga leen ci aada boobu bon yow bàyyi nga yoon wi te ñoom du yàgg ba ñuy gëm la moo tax yàlla ne wayin tutee ndem topp nga ak taraman fil ardi la gën a bari ca ñu ci suuf boo leen toppee yóbbillu ka ñu la an sabilillahi walis yoonu yàlla in yattabi'uuna deen ñi topp ila banna lu may njoorta wa in hum deen ñoom ila yaxrusuun lu may dañuy nattale waaye amul dara lu leen wóor maanaam dañuy làmbatu daal ak a joortu in rabbaka naka sa borom huwa moom aalamu moo xam man yadallu ka dana réer an sabilihi walis moo xam bil muhtadina ci way jub ya fa kuloo kon lekk leen bi ma dukkira dëpp ñam woo xam ne tuddeef na ismullaahi turu yàlla alayhi fag rayam wala fag defaram na ko lekk in kuntum dem nekk ngeen mu'mini dooy gëm bi ayaati yi ci alquraanam wa maa lakum loogi yéen allaa taakulu du ngeen lekk mimma ci lani li nga xam ne dukkira tuddeef na ismullaahi turu yàlla alayhi fag rayam waqad fassala te mbiroon teqale woon na ci suratul maida lakum ñeen leen maa xarama na ko aleykum ci yéen illaa ma turutum lu may loo xam ne loru loof na leen ilay ci lekkam wa inna katiiran naka lu bari la yudilluuna dañuy réeral nit ña bi awaayam ci seen i bànneex bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam inna rabbaka naka sa borom huwa moom aalamu moo xam bil muctadina ci ñi nga xam ne ñoo jéggi dayo wa doro bàyyi leen zaahiral ismi bakkaar bi feeñ wa baatanu waag bi nëbbu inna alladina naka ñi nga xamne yek ci boone ñi ngi faggu alisma bakkaar fa na xalfeef bima fay leen bi ma ci liñ nekkoon yaqtarifuna di di faggu ko ci bakkaar wala taakulu bu len lek mimma ci bepp ñam bepp yap bo xamne bañu koy reey lam tu tuddeefut ismu laahi tu alayhi ali fagram wa innahu naka tuddefa turu kenen ku dul yàlla la fiskun ak wa inna shayatin naka sheytaan yi yuuxuuna ñooy waxyu ilaa awliyaayam ci seen xarit ya liy jaadilookum ngir ñu dàgg seen teg yéen wa in ataatumuhum ndem toppa ngeen leen ca loola innakum naka yéen la mushrikoona yéen it kon way bokkaale ngeen ni ñoom rek bàyyi na loolu ma ngi misaal aji gëm ji ak aji weddi ji képp kenn ci ñoom nu mu mel ca morom ma mu ne aw man kaana ndax ki nekk na maytan di aji dee saa ay naahu ñu dundal ko ne ko naa ji dee dim ndox ñu dundal ko ci biiru ndeyam mu judd nekk doomu aadama wa naa ñu def loo ñel ko nooran leer yem si muy dox bi yeeg leer ga mu ami bëtam di xool di xam fu mu jëm fi naa ci nit ñi kaman naka dana mel ni ki nga xam ne masaloo misaalam fi dulimaati mu ngi ci ay lëndëm xol bi lëndëm ba du gis dëgg gët yi lëndëm ba du xam fu mu jëm laysa bi xaarijin duut aji génn minaa ci lëndëm ga kazalika naka noonu muy léebee zuyina ka gis li ci nama mooy ki gëm yàlla ki gisul li ci nama mooy ku weddi loolu misaal rek la kazalika naka noonu zuyina la rafetalee lil kaafiri ni ñel yéefér yi maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluuna di def ko wa kadalika naka noonu jaal naa la ñu mujjal fii kulli qaryatin bépp dëkk ñu def fa akaabira mujrimiha way mag gi bakkaar ya li yam kuroo ngeen ñu fexe fiyaa ci dëkk ba wamaa yam kuroo den ñuy fexe illaa bi anfusihim lu mooy seen bopp wamaa yash'uruuna te itam du ñu yëg ne ñoom loolu yëpp seen bopp lay dellu si kon loolu mu ne ak war la te war nag ak mu jëm fan la mu ne wa izaa jaathum ndem dikkal na leen aayatun kaawteef xaaloo ñu nga naan lan nu'mina ñun gëmtinu xataa nuutaa ba joxeef ñu lu wootee la joxeef na ko rasulullah yenenti yàlla yi allahu yàlla alamu moo xam ay sa yajaalu fu muy def risalatahu ak yonintaam sa yusibu dana jot la jëni ñi nga xam ne ajramu bakkaar nañ saxaarun dana jot leen saxaarun ak toroxtaane indalaahi fa yàlla wa adaabun ak mbugal shadidin mu daa ji netti bi maa ngir la nekkoon yam kuruna di fexe ko bàyyi na loolu ma ngi jëm ci sunu si yàlla ci ay mbindeefam maana yàlla la mu daan fay ci baax ba tey moom la cay fay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 day jaalullaahu lay def yàlla ariji sa mbugal ma ala lazina ci ñi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu wa haada lii siraatu rabbika yoonu sa borom la mustaqiman wu ne caw wa qad fasalna biral nañu al ayaati alquran li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu waaru lahum ñeel na ñooñu waaru ci alquran daaru salaami aljanna mooy kërug jàmm ind rabbihim fa seen borom wa yàlla waliyum moo méngoo seen mbir bi ma kaanoo ci la ñu nekkoon yamaluuna di jëf ko wa yawma yaxsharuhum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 ajal te digal nga ko la naa ñu xaala wax yalla ne yow mi ñu gonko nak ki ko gonkon ci lu dul dëgg yéen ñëpp safara maswaaku moy seen taxu saxuwaay way khalidin ñi dee beelu fa fele illa ma sha allah lu moy lu soob ne in rabbaka nak sa borom hakimun yalla ji xarala la ba sunu fi yalla ci ay mbindeefam bu kadalika nak nanu nu walli li ñi mengale ba'd dalimin leen ñi way tooñ ya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 dana ca fay ki nga xam ne moo ko doon liggéey wa rabbuka sa borom alxaniyu maa ji giijal lu nekk am na ko doo rahmati yàlla mooy borom yërmande in yasha su ko neexee yóddeeb ko mu deme leen maanaam mu jële leen fi yéen ñëpp wa yastaxlif mu wuutal min baadihim seen min baadikum seen gannaaw maa yashaa'u lu ko neex kama anshaanaakum ni ñu leen sosee woon min duriyati qawmin ngeen bàyyee ko ci sëti aw nit aaxarina ñeneen noonu la ñuy sosee ñeneen ci yéen di ñëw yéen ngeen dem innama tuaduun naka la def na dool leen ko ci àllaaxira laatin aji dikk la mu wa ma antum déet yéen bi mucjizina ngeen di way raw yàlla kul waxal ne yaa qawmi yéen sama nit imaloo jëf leen liggéey leen ala makaanatikum ci seen béréb wala ala makaanatikum ci ni ngeen ko mane walla ala makaanatikum ci seen mbir inni man amilu naa ji liggéey la kon nag ku fi yàlla def daal booye boo nga liggéey di jaamu yàlla ni nga ko mënee te xam ne bés dana ñëw yàlla it def ci yow li ko soob loolu imalu ala makanatikum ci seen mbir inni man amilu naa ji liggéey la soo taalamuuna bés dana ñëw ngeen xam man kan lay kan nekk loo ñeel ko aqibatu daari mujj kër gu rafet ga innahu luy mbir laa yuflixu du texe mukk a baalimuuna way tooñ ya ñaña dañu téxé tooñ yooyu nak la bëgg ñew légui moy mooy benn melokaan ci jahiliya loolu batay mu ngi ci ñun moy ño xamné ne bu ñu bayee su ñoree balañ koy ñam jox ci xiram beeg jinni ji ci sànnil ko dor ko mëna ñam bu di yap yi non la buy mbaay ma bi buy dom ji lu ci nek rek sakal nañ ci xéram bi wala bokkaale bi ab cër te wane na lii nag ñu ngi ko jëlee ci suñ maam suñ démb suñ maamaam maamaat bur ne jaaloo def nañ li laay ñeel yàlla mima zara ci li mu bind minal xarsi ci mbay ma wala naa amee jurub kër gi nasiiban ab cër fa qaaloo ñu ne xaasa lii lillaahi ñeel na yàlla moo ko moom bi zaamihim ci seen njort wa xaasa lii nag li shuraka yi na ñeel na suñu bokkaale ya léegi nag fa lu nekk na ñoom yéefar yooyu ak mushrikoona yooyu li shuraka yi ñeel seen yàlla ya loola falaa yasilu du yegg nag ila jëm ci yàlla te am gàtt bu juddu ñu ne bi moom xëram yee ko moom léegi nag li ñu moom loolu moom ñoo moom li yàlla moom nag day lay dañ koy bokk ak yàlla ji wa maa kaana la nekk ñeel yàlla foofu loolu yasiru day yegg ila shurakaayam seen bokkaale ya kon saa bon na maa yaxkumoona li ñuy àttee wa kadalika nak noonu zayyana la rafetalee li katirin la ñeel lu bari min al mushrikiin ci yéefar yi noonu da leen seen bakkan rafetalee qatla awlaadihim ñu rey seen doom ya shurakaawum ci seen yàlla ya faayili zayyana mooy shurakaaw zayyana shurakaahum li katirin min al mushrikiina qatla awlaadihim li yar doom ngir ñaal ak leen wala yalbisu ak nañu jaxase alim ci ñoom diinahum seen diine walaw shaa allahu su neexoon yàlla maa faaluhu duñ ko def fasarhum bàyyi leen wa maa yafkurun ak la dudal yàlla wa qaalu ñu ngi naan haadihi lii day ana amun jurub kër gi la wa harsun ak mbay xijrun mu nekk di lu ñu tere laa yatamuha du ko lekk illa man nashaa lu muy ku ñu neex bi zaamim seen njort mooy dañ ko jànge woon ci wasilaat xaam kii moom ñu ne am soowam gana koy lekk kii ñu ne am soowam xëram yi rek kii ñu ne yàlla yi rek ñoo ko moom waa na amun ak juru kër goo xam ne xurimat xaraamaleef na duhuruha seen i gannaaw ba kenn du ko kenn du ko war ñu ne ñu ne xamaa zaaruha waa na amun ak am na ci juru kër gi buñ koy rey laa yaskuruna duñu tudde ismallahi turu yàlla alayha fu moom loolu ñu nag ñoom ñoo ko bokk iftiraan jisiim dana fay leen yàlla bi maa kaana ci lañ nekkoon yafturuuna di dugal ko wa qaalu ñu ngi naan maa fi butuuni haadihi l anaami li nekk ci biir yi jur kër gi xaalisatun aji sell la li dukurinaa suñu góor ñi danañ ko lekk waaye muharramun lu xaraam la ala azwaajinaa ci suñu jigéen ñi wayen yàkkun waaye loolu mooy buñ ko rendee waaye wayen yàkkun bu nekkee nag maytatan di medd fahum ñoom shuraka ñooy bokk rek fii ca medd ma war ko mën a lekk dana fay leen yàlla wasum seen melokaan wa innahu yàlla hakimun aji xarala la alimun aji xam la laqad xasara perte na la gëne ni nga xam ne xatlu rey nañ awlaadum seen doom ya safaan ngir dese bi xayri ilmin ci lu xam-xam wa xaramu xaraamal nañ maa razaqahumu laaw la wërsëgal na leen ko yàlla iftiraan ngir duudal alallaay waral yàlla qad dallu réer nañ wa maa kaanu muhtadina jubuñu dañ koy taayil masdar benn yoon wa maa kaanu muhtadina kon jubuñu بين mu dellusi ci feeñal kàttanu yàlla ak xéewalam ci doomu aadama ni mu bare bu fekkoon ne nit seetlu na loola ndax itam lépp lu am ci àddina ñu di ko jëriñoo xéewali doomu aadama la meññ yi meññ yëpp yàlla doyewu ko dara dama dama la ko bëgg a xéewal bu waxtu wa jotee mu suukaral ko ko wala mu faraxal ko ko màccee ba koy suukar wala mu di ko eh, xorom wala mu di ko faraxal kenn xamut fi mu koy jële lu may moom léegi jërë kër gi itam yàlla def bu fekkee ci bëy yi am kawar la ñu koy rabbaay bari génne buy ci xar yi am leen la ñu jël leen bi di ko rabb di ko jëriñoo defal ñu jurub jurub kër gi juróom ñett yépp ñu di ko lekk muy gëlëm xar mi ak bëy wi ak nag wi bu fekkee ñeent la bu ci ne am góor ak jigéen muy juróom-ñett léegi nag ana yan ngeen fi sàkk yoo xam ne ngóor gaay taxam jigéen gaay tax muy xaraam ci kii di dagan ci kii lee ga di ko moom lale gan ga di ko moom fan ngeen jële loolu loolu la ne huwa yàlla alladi mooy bur bi nga xam ne ansha sos na jannaatin ay tool maarushatin yoo xam ne yu ñu yëkkati la mooy toolu raisin dañ koy tàntal mu am arsu ca kaw mu di ca law di ca meññ looluy maarushaat wa xeyru maarushaat ak yoo xam ne duwul ñu yëkkati wa naxla ak tàndarma wa zaraa ak mbay ma muxtalifan aji wuute la uklahu meññatam ma wa zaytuna ak olive wa rumaana ak grenade mutashabihan lépp dafa niroo ci bu ñoree saf suukar wa xayra mutashabihin waaye nekkul aji niroo ci meññetam doom bi ni muy mel kuloo lekk leen rek min samari yi ci meññetam ma isa asmara bu meññee waatu waaye na ngeen nag xaqahu asakaam yow ma xasaadi yi bés ngeen koy góob na ngeen te génne asaka wala tusrifu te bu leen yàq innahu yàlla laa yuxibu du fay almusrifina wa yàq ya wa min al anaami juri kër jura kër gi it yàlla moo leen ci defal xamoolatan lu ñuy war aka sëf wa farshan ak boo xam ne da boo xam ne li ngeen cee jëlee da ngeen koy lal di ko lal di ci tëdd muy der ba kuloo lekk leen mimmaa razaqakum ci la wërsëgal na leen ko laaw yàlla wala tatabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan jéeguy cheytaane ak i rëddëm innahu cheytaane lakum ñeel leen aduwun noonu la mu binun bu daa biir samaniyata aswaajin juróom-ñetti xeet min addaami ci xar isnayni ñaar wa min almaïsi ci bëy isnayni ñaar xul waxal ne addakarayni moo ndax ñaar ña ca bëy wa àqar ma xarama lu wax ne moom la yàlla xaraamal ci yéen amil untayayni wala ñaar ñu jigéen ña ca bëy ma xar wa aw mashtamalat wala béréb ba lamboona alayhi ci moom arxaamul untayayni roxam ak ñaar ñu jigéen ña ndax fa nabiyu nii na ngeen ma solo bi ilmin waaye na ànd xam-xam ci loolu in kuntum ndem nekk ngeen saadiqin di way dëggu ana ban diine wala ban téere moo leen wax loolu wa min al ibili ci gëlëm itni ni ñaar góor ak jigéen wa min al baqari ci nag itni ni ñaar góor ak jigéen xul waxal nag a dakkaray ni ndax ñaar ñu góor ñi xarama wala xaraamal na ko yàlla amel unta yey ni wala ñaar ñu jigéen ñi amastamarat wala béréb ba lamboona ali ci moom arxaamul nii roxom ak ñaari jigéen ña ndax fa saa xaraam am kuntum wala boog nekkoon ngeen shuhada di way fekkee is wasaakum ba dénk leen laaw yalla bi asa ci wax ji mu mel ni dañ ko tontu ne ñun koy fekke wuñ ko mu ne kon nag tooñ ngeen ndax fen ngeen fa mën a adulamu kan moo gën a mën a tooñ ñu man iftara kuy duudal na alallaahi waral yàlla kadiban ay nar li yudilla ngir mu réeral naasa nit ña bi xayri ilmin ci lu benn xam-xam inna laa yàlla laa di du jubal alqawma nit ña Abba ñi di way tooñ ñooñu yàlla du leen du leen jubal mukk ku waxal ne li am daal ci tawraat ak linjiil te muy ay mbir yoo xam ne xaraam naa lekk bokkul ak yi ngeen ma wax ci borom bi taala mu ngi ak ñun yi wax na ay zaytuuna ki ay rumaan ak yu demee ni ki noonu léegi nag ma ngi jëm ak ñun ci ay mbir yoo xam ne manees na ko lekk ak yi mënu sa lekk te loolu teqale woon nak ko ci suratu Maayida fii da ko doon ba mbëstën kon man de fekkuma ci tawraat ak linjiil lenn lu xaraam ci kuy lekk lu mooy dafa nekk li ñu jàngoon ci suratul maayida kon nag yi ngeen xaraamal ne mooy seen diine jegewul fenn lu mooy jax-jaxal ak seytaane wala boog mu nekk pexe waaye suratu maayida ci bopp ba aaya bu ca njëkk wala ba ci aaya ñetteel ba ci dam moog laamul xinziir yooyu mu ne leeroon na foofu yonent bi nag sallallahu alayhi wa am na ay mbir yoo xam ne ba mu ñëwee ba Madina la ko yàlla wax ne ko loola na ko aaye bu ñu ko lekk loolu mu aaye nag la fuqaaw yi tuddee ne dañ ko sit mooy lekk lépp loo xam ne dafa am sell par bépp rabu àll bu am sell muy ñoom golo yeeg gaynde yeeg bukki yeeg ci lii loolu yonent bi bi gàddaayee ba ñëw Medina la ko yàlla wax ne aaye loolu buñ ko lekk comme nag moo ko aaye nekkul ci biir yoxu alquran fuqaaw yi ne loolu moo di ak ci bél yonent bi ne kon xaraamal naa aklu kulli zi naabin min assibaa wa kullu zi mixlabin min attayri bépp nginnaaw bépp picc boo xam ne dafa am ay gëddu gëddu mooy gémmiñ gu gudd gu lonkalu ak tànk yaam ay we mu di ko fàddee moo picc sib nañ ko lekk moo bépp rabu àll boo xam ne dafa am sell bu fekkoon ne ci juru kër gi la yi ci am sell yooye dafa xaraama lekk mu ne léegi nag médd xaraam naa lekk te mooy lu dee lu dee ci boppam te kenn rendiwu wala rendi nañ ko waaye rendiwuñ ko ci ni sharia waxoon loola médd la médd nag yóbbaale na lu wàkku ci buum ba dee yóbbaale na lu ñu ne farit mu dee yóbbaale na li bartandiku daanu dee yóbbaale na li ñu lukk ba jën mu dee loola medd la ak bu ñu rendee deret jay génn di sotteeku kenn du ko lekk bokk ak yàpp wu lakk ba ñorul wala dafa am deret Aïchatu nee na kunna naakulu laxma wa dammu alayha xutuut daanañ lekk ak yonent yàpp fekk du ñor lool deret jaa ngi ci biir yàpp wi kon loola bokkut damul masfuux la kenn du ko lekk yonent bi nee na yàlla daganal na ci yéen ñaari deret ak ñaari medd ñu ne ko ñaari deret ya mu ne alkabiru wa taxaal moo di res ak gaddaam ndax ibaaraan deret rek ñaari medd yi nag mooy yan mu ne asamaku wal jaraat medd moo xam ne soccet la wala njéeréer la wala boog muy jën luy dund ci ndox moom mooy jën am na li ñu tuddee barma yi loo xam ne mën na ndox waaye mën na jéeri loola boo ko jàppee nar koo lekk da koy rendi <clears throat> loola mooy jëfit ak mbonaat ak humab demee ni ki noonu ak yowab xeeti jaan yooyu nga xam ne mën nañ ndox mi waaye mën nañu jéeri ji jaan mën nañ ko lekk bu fekkee wóoru nañ dangar ja mën nañ koo dindi ba wattandiku ko dara du ci nekk li nekk ci ndox mi it lépp lañuy ñuy lekk donte dafa niroog mbaam xuux wala mu niroog ab xajit te dëkk ci ndox mi loola dañ koy lekk amma borom sell ci kër ni ci xaj ci kër gi sobe la kenn du ko lekk donte nga xam ne dafa laal sa ndab sax bu ci xabee doo mën a jëfandikoo ndab li lu may nga raxas ko juróom-ñaari yoon am yoon woo xam ne suufa cay nekk loola lu tax nit ñaa ngi cay sonn lool di ko gëstu daan lu waral loolu ba am na ay docteur yu wax naan xaj dafa am ay microbe yu ànd ak moom yoo xam ne bu xabee ci ndab boo jëlee microscope danga nga mën a gis microbe yi mu ca bàyyi waaye loolu yitteelul lislaam lislaam li ko yitteel du loola li ko yitteel mooy nii la ko yonent bi waxee rek su xabee ci ndab nañ ko raxas juróom-ñaari yoon ihdaawu na bi turaab ndax am na lu ci nekk ci wàllu santeeg amu ci suñu yoon nekku ci mën naa mën naa ñàkk ndax boo koy bëgg laye noonu kon buñ ko yóbboo ci laboratoire gisuñ ca loola dañu naan kon lii dagan na te dagan gi mënatul am ndax ki yàlla yónneen wax na ko ba pare kon yooyu yitteelu ñu jëf c'est pas nécessaire problème bu daganut ngay laaj pourquoi pourquoi ki la bind wala ki yónni won ci yow mo ne haram na sa yor nekkatu ci lu tax danaay faral di wax ni bokul ci teggin ci julit mbir mu haram mu ne nga bëgg xam lu ndax kon mel xamul rek pour yow doto am ben conviction pour bayiko te lol nak ci bokku ci gëm yalla maanaam mu ngi mel ni ku woy juróom ne jox ma satala sii doo toog naan ko papa lu tax ak loo koy doyee sa nekku ca kilifa gi ne noo lii nañ ko def ñu def ko lii nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko te mooy yàlla donte xamoo lu tax kon xaj kenn du ko lekk moom dafa xaraam amma yeneen yénte yénte yi nag mën nañ koo lekk war waraan yéeg sax yeeg yëpp boo bu lépp loo xam ne amul deret loola sharia def ne mën nañ kaa lekk loo am deret nag moom la xaaj lu ci am sell sib nañ koo lekk yenn ya xaraam na lekk ama doomu aadama nag moom duñ lekk dara ci moom doomu aadama duñ ko lekk mutlaqan moom loolu lay wax naan qul waxal ne laa ajidu duma fekk wala fekkuma fii ma uuxiya ca la wax na ko ilay jëm ci man fekkuma ci muxarraman lu ñu xaraamal ala taacimin ci aji lekk yataamuhu mu di lekk ka ilaa an yakuuna lu mooy loola dafa nekk maytatan di médd aw daman wala muy deret masfuuxan bu ñuy buusu nga xam ne bu ñu rendee mooy soppeeku aw laxma xinziirin wala mu yàpp xinziir fa innahu loolu rijisun sobe la aw fisqan wala mu di génn ak topp goo xam ne uhilla tuddeef na fa yëkkateef na fa baat ca bañ koy rendi al ihlaalu mooy rafau sawti inda dabxi li xayrillaahi ci kudut yàlla bii loolu fa man uturra ku loru loof na ko nag ba bu lekkul dee xayra baaxin duumu aji bew wala aadin duul aji jéggi dayo fa in rabbaka naka sa borom gafurun aji baal la ko rahimun aji yërëm la ko wa ala na ñi nga xam ne aadoo yëwoon nañ xaram na xaraamal nañ kulla di dufrin bépp borom wee waa ba bépp borom wee nga xam ne wee day nekk ci ci kaw mu ne yooyu xaraam nañ xaraamal nañ ko ci yahud yi lépp lu am wee loolu nag dugul ne dafa xaraam ci téere yi waaye seen ak njubadi la wa min al baqari ca nag walla xaname gàtt xaram naa xaraamaloon nañ ko alim ci yahud shuhumumaa seen graisse graisse gi muy nebbon bi duñ ko lekk illaa xamalat lu may loo xam ne yenu na ko duhurumaa seen gannaaw lu may graisse goo xam ne ma nga taq ca yahudi ga gannaaw ga awil xawaaya wala mu taq ca euh, mbaq ga xawaaya mooy fi ñaari fi euh, mbàq gi genn gi dajee ak butit bu mag bi yooyu mooy xawaaya mooy dabi biir daal booye boo nga ne awil xawaaya wala dabi biir ba loolu la ñuy waxee xawaaya ndax amaawul xaliza foofu lay dajee ak amaawu daqiqa maida baa ngi nii mu am bon bi ak amaawul xaliza ak amaawu daqiqa butit euh, bu mag bi nga xam ne moo jokk ci mustaqim bi fi mu dajee ak butit bu ndaw bi loolu la ñuy tuddee xawaya kon mooy dabi biir bi daal aw maxtalata wala la jaxasoona bi at bi nag yax zalika loolu jësey fa fayee nañ leen ko bi baxiyim ngir seen ak bew way naa ñun la saadiqoon way dëggu lañ fa in kaddabuuka suñ la weddee faqul waxal ne rabbukum seen borom day <clears throat> doo rahmatin borom yërmaande la waasiatin bu daa yaatu wala yuraddu deefu dellu delloo ba suwoo ayam anil qawmi ci nit ñaal mujrimiin ñi di way def bakkaar sa yaqulu xalse naa wax la jëne nga xam ne ashraku bokkaale nañ xalse nañu wax naan e law sha allahu yàlla kay moonu weddiloo yàlla moo ñu def ci kéefér gi ndax law sha allahu bu neexoon yàlla ma ashrak naa ñun duñu bokkaale wala baawu naa du caageen sunu baay wala xarab naa duñu xaraamal min cheyin dara kadalika naka noonu ka kaddaba la weddee la dina ñi nga xam ne min qablihim nekkoon nañ ci jëkk seen xataa zaaqoo ba ñu mos baasana suñu ay qul waxal ne al indakum ndax nekk na fi ñun yéen ndax nekk na fi yéen min ilmin benn xam ci loolu te loolu bu amoon fa tuxrijuhu ngeen génnee ko lanaa ñeel ñu loolu amut kon na ngeen di fen in tattabiuuna kon déet ngeen di topp ila danna lu may njoort wa in antum déet yéen illaa taxrusuuna lu may ngeen di nattale ak a fen rek qul waxal ne fa lillaahi ñeel na yàlla alxujjatu lay wa albaalixatu wadaa ji jot walaw shaa bu ko neexoon laa daa ko mujj bale naaj maina seen qul waxal ne xaluma wool indil shuhadaakum seen way seede ya lazina ñi nga xam ne yashhaduuna danañu seede ne ana laa naka yàlla xarama moo xaraamal haazali fa in buñ ko seedee nga xam ne kon ña ko seedee kiiwut seede si ñoo fi dàq fen ndax ndax du dëgg kon soo leen wooyee bañ seede ko nga xam ne ñoom ñëpp dañuy fen kon nga bay leen fala tachat bul teeweeti maaw ma ànd ñoom benn jotaay wala tabi bul topp awa alladina bànneex yi ñi nga xam ne kat dabo weddi nañu bi ayatina ci suñu alquran wala ji naag ñi nga xam ne laa yow mi yuminoona duñu gëm bil axira hum ñoom yaadiloona ñooy sàkkal ndend bi rabbihim seen borom ñooy sàkkal yàlla morom loolu moo tax ñuy def loolu léegi nag qul taalaw atlu ma xarama rabbukum ba ca laallakum tattaquun bi mu wàccee yonent bi def ne bu fekkoon ne lii rekk ñëw ci alquran it mu day doomu aadama ndax da nga ci gis ay masaayil yoo xam ne fukk lañu li xaraam a ngi ci waaye li dagan yépp mu ngi ci bu jëkk bi mooy bu leen sàkkal yàlla bokkaale ci li mu bind ak loola nu mën a mel bu mu di jant bu mu di weer bu mu nekk biddiw bu mu di malaaka bu mu di yonent bu mu di wàlli bu mu di borom xam-xam képp ku ñu bind rek mbindeef la nekkul yàlla ndax ñoom ñëpp jaamu yàlla lañu in kullu man fi samawati wal ard illa ata arrahman abdan ñaareel ba mooy sa ñaari way jur na nga rafetal ci ñoom rafetal gu mat nga sellal seen ndimbal ngir yàlla subhaana ndax itam bu leen def lenn lu ñaaw bu leen dëngee ndax dëngee ay way jur bokk na ci bakkaar yu mag yi alquran wax na ko ay yooni yoon wa qadaa rabbuka alaa taabudu illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaana wax na feneen an uskur lii wa li waalidayk santama te rafetal jëmee ci ñaari way jur yi al buxaari yi solo na ak muslim yëpp wax ne abdullah ibn mas'ud wax na ne laajoon naa yonent bi ana jan jëf ñoo gën ci jëf yi yonent bi ne ko julli ca waxtu wa rek balaa muy wéy mu ne ko lu ci topp mu ne ko ñaari way jur mu ne lu ci topp mu ne jihaar ci yoonu yàlla kon lolu day tekki ne way jur haqam lu reey la ken munu ko jot bok na ci baxé ko top ko bi muy dund bu dé nga diko ñaanal bok na ci baxé ko nga bax ci ay xaritam bu fekké ne gisatoo ko nga toppatoo ña nga gison mu nek ak ñom lolu yépp ci baxé sa way jur la su fekké baxé ko dala tëwoon wala am na lu ci manqué woon gisatoo ko li nga gis mu taqoon ak ñoom nga dab ko ci ñooña bokk na ci njëriñal baaxe ay jur dana tax say doom baaxe la nee na barru abaakum tabarruukum abnaawukum baax leen ci seeni baay ndax seeni doom baax ci yéen ndax yeneen bi nee na kama tuddiinu tuddaanu li nga leblee loolu lañ lay fay nettali nañu ci benn xissa ci genn gàddu pël pël yi ñu baal ma dañu daan def ne bu màggat mi màggatee lool suñuy màng ci wind bi lañ koy bàyyi ba mu dee rekk mu ne benn bés gàdd pël gi di màng bàyyi fi nag màggat mu góor mi baye ko ci negam rek dal di seuf top ci nag yek ba yeeg ak mbam yi dem nañ seen yoon ba ñu ba ci yoon wa am luñu ñu borom kër gi ne taw bi demal nga jëli ko ci kër ga nga yóndu sa maam ndax ma nga fa mu ñew jël loolu ko koku mam mu ne waw ah koku diw mu ne waw mu ne ah, ma nga ngeen ba ma fi xale bi noppi mu ne ko kaay bala ngaa dem mu ne ma gis nga nii ma sa baay def maa nga rek bàyyi ma fi ma nar a toog ba dee mu ne waaw mu ne aw jàng la yow it boo màggee nga def noonu xale ba daw xam dabee bàyyi ji mu ko lu sama am wax gis nga ko mu ne waaw mu ne lu mu wax mu def ne gis nga ni ma sama sa def de aw jàng la it boo màggee nga tari ci moom góor gi ne tekk bi yàgg moo del bopp bi ne demal jëli ko xale bi dem jëli jëli loolu mooy kamaatu diinu daanu loo bañ ñu fay la ko ci sa doom bu ko lebal sa baay benn waay nee na yenent bi man de yaakaar naa ne sama baay fay naa ko mu nekk noo ko def mu ne man fukkeet a ngi yoo xam ne mënul dara maa koy yëkkati maa koy tëral buy dem ci wàll maa koy yóbbu lu ne maa ko koy defal mu ne ko ah, tax nga yaakaar ne fay nga ko mu ne ko waaw mu ne ko fayoo ko ndax moom am naa biir bu yàgg dana war a man ñeenti at wala ñetti at yoo xam ne noonu lay sonnee ci yow te yow fukki at yi yëpp yaa ngi ngéeju mu dee nga noppalu te yàlla fay la moom nag bi mu lay def noonu daf ciy boole di ngéeju nga dund amu ci kenn koo xamee sooy jur na màggat nga yóbbu ko ci gannaaw kër gi raxas ko lëngatoo ko tëral ko la mooy sa xel sa xol a ngi ci bu deewoon ma noppalu mu ne sa baay nag wala sa yaay loolu yëpp daf la koy defal ba pare bëgg nag nga dund mu ne sa yaay nag dalay teg ci kawam nga tojal ko walla nga sotti ko ndox mu daldi ree raxas la fóon la teg ñaat nga dund te yow bu la ko defoon nga dal di sib loola mu ne kon nag doo ko mën a fay ñetteel ba mooy rey sa doom ngir ragal ñàkk rey sa doom ngir ragal ñàkk loolu arab dañ ko daan def seen doom yu jigéen yi bu juddoo rek ñu dal la ko suul ko muy dund fàkk mu dee ñu suul ñu ne ndax kii gàcce rek la mën a indi waaye mën a mënul indi benn njëriñ ci àddina noonu lañu daan def rey sa doom ngir ragal gàcce bu dundee gàcce lay indi mënul aye mënul gàddu ngànnaay du jëriñ kër gi dara loolu nag ragal nag mu yokk sëb dund te du la indil dara ndax du produire dara te waxtu wu nekk ma ngi def istihlaak mu ne bu leen leen wàkk ñuy dee ngir ragal ñag bokkul nag am na ñu koy laaj ne ndax mooy garab yu docteur yi dinañ koy jëfandikoo fi ñu tollu ngir soreel njuróom jigéen ñi wala ñu ñàkk doom ñu ne loolu rey doom la ngi reyal ñàkk tonte li mooy li Alioune waxoon Ibn ba Talib te bu yàgg la ko waxoon bañ ko laajee ndax loolu mooy rey doom mu ne déedéet ndax ba yàlla na rey doom dangay ngay bàyyi ba mu nekk doom waaye comme dara nekk gu fi dëggul rey doom ñu ne ko kañ lay nekk doom mu ne ñeenti état bi alquran wax ci suratul mumin fokk mu jaar ci door a nekk doom fokk mu nekk nutfa فكم هناك علاقة فكم هناك مضغة مخلقة نك نبندكو ما عم روحو سبوبا لي دور نك دوم واي بجارو تي أطوار الأربعة نينا كون نك قل دوم كون نك كيغا قمني أمبل دفل دارا نفخي بمو يخ أمب ولا مصري نينا لولو بابكو تي لنغا قمني شريل إسلامية بجنكو عندك bu fekkee njur mi dafa war a sore loolu nag sharia moom da ko da ko digle ndax yenent bi dafa xaraamal nef nee na bu kenn nef ndax nef dana néewal doole gune ga néewal doole yaay ja ak bay ja dana topp waxambaane ba bu matee góor moroomam di ko nërmeel ndax doo am doole ndax namp bi mu waroon a namp ay cëram yëg ko jaaru ca su ko defee loolu bokk na ci musiba yi dal doomu aadama yi duñu nàmpal gune yi lu mooy lu tuuti wala ñu leen di nampal ay meewu boutique ñuy jënde ci ay boutique jël niidoo di leen ko nàmpal waa ji ne na moo tax gune yëpp niroo léegi ndax niidoo la ñuy nàmp ñoo niroo ci bon ñoo niroo ci dund bu kenn yaakaar itam ne doom yi bari gi ñu bari benn njariñ nekk na ci bari te nekkuñu qualité amul benn njëriñ yenent bi muy wax naan ah, tanaa kaxu te takaataru fa inni mu bàyyin bi kumul umam denc leen ngeen amit doom ngeen bari ndax damay puugare woo sama xeet yowmal qiyam waaye ña muy puugare woo mooy ñu wér ñu dëgër ñu baax ñu yaru waaye ñu jub ñooña la waaye bari mboob rekk mel ni ay weñ te xam-xam nekku fa ragal yàlla nekku fa du puugare woo ñooña kon loola amul benn njëriñ njuram muus itam daganut mooy di jur rek di sànni te parents yu bari dañoo démissionné léegi ci gune yi koo ci wax mu ne man kenn mënul leen dara te yéen leen di jox lekk di leen jox fu ñu tëdd di leen wadd kon mën ngeen ci dara yéen a ko tey kon nag ku ci nekk na ci am loo xam ne dana sonn ci seen njàng sonn ci seen yar su ko mënul mu sàkk ci ay pexe ndax bu ëllëgee gune yooyu yaa leen lor ndax yaa leen fi indi te mënalu leen dara jéemoo leen a dara loolu mooy njuram mus baaxut dom dénkaane la bu jógee ci yàlla bu la yàlla dénkee nag war nga bés booy dajeeg moom dam la dénkoon am loo ca def waaye parents yi dafa mel ni dañoo démissionné ci gune yi ku nekk ne ma leen dara wala dañoo të te gune gu nekk am na fu muy fanaan ak fu muy lekkee ku koy wadd kooka mën na ca dara loolu mu nekkoon doom yooyu bu ñu judd rek ngeen rey leen ngir ragal ñàkk ñeenteel ba moo di zina ak xeet yu ñaaw yépp ak xeeti bàkkaar yu bon yëpp nee na bu leen ko def bu leen ko jege sax la wax ndax aw ñaaw téef yaakaar na ne ku nitee du ko def waaye kon bu leen ko jege ndax jege gi mooy def sabab bi te ku jàpp ci asbaab léegi nga dem ca mbir ma loola bu leen ko def jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi mooy indi xaraam la ndax loolu muqaddimaat la ci zina te loola baaxut nee na ngeen ko moytandiku mu ne bu feeñ beeg bu nëbbu bi yépp moo ci yem yàlla bu muy wax ne bu leen jege zina waxul bu leen def faaxisha waaye bu leen ko jege xam nga ne kenn gënu koo fiir yonent bi nee na laa ahada axyaru min allah xarama alfawaxisha ma dahara minha uma batana kenn gënta fiir yàlla xaraamal na aw ñaawteef wi feeñ ak wi nëbbu juróomeel ba mooy rey bakkan bakkan bu reyul bakkan nga rey ko ci tettay ko loola bàkkaar bu màgg la jéggi dayo la gu ñaaw la ndax yàqali aj bind ji bindoon la te yàlla da ko bind xereñe ko nga ñëw di ko rey loola rey bakkan daganut ci tey bokk na ci gën jaa gi bakkaar gannaaw shirku rey bakkan te tey ko moo ci gën a rëy moo tax yàlla joxe cib tëkku yonent bi alayhi nee na umirtu an uqaatila nnaasa حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى بحق الإسلام وحسابهم على على الله yàlla digal na ma ma xeex ak nit ñi ba bañ ba ba ñuy nangoo wax laa ilaha illallah donte waxuñu muhammadu rasulullah suñ ko waxee nag seen deret ñoŋ na ci man lu mooy ci xàqul mooy lekkaale li jirim loola itam daganut buñ la ko dénkee danga ko toppatoo gën jaarafe ci toppatoo moom na lekk alalam boo yëgee ne jub na wala mag na <clears throat> nga jox ko alalam fa in aanastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwaalahum juróom-ñaar ak juróom-ñett loola ma nga jëm ci jaaykat ya ak jëndkat ya ku ci am balaas wala baskil nga di ko peesee na nek bu baax bu jup nga di ci peesal nit ñi bu fekke lu ñi nat la boy nat na fess na nek lo xamne ne bu baax la bu len ko mes mësal di nax ka nga xamne mom ngay jaay na yem dal ci ni nga xamne non la yoon wax mo xam wala muy nat bu ngeen ko defut da ngeen di lekkal li jaamuri ci batil mata alquran ne waylun lil siin ñu ne ko ñan ñooy ñuy mës-mësal mu ne mooy ñi nga xam ne isactaalu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun mooy koo xam ne sooy jënd da koy feesal waaye booy jaay da koy mës-mësal di nax nit ñi bokk na ci mës-mësal jaxase lu baax ak lu bon ngay jël warga wu bon jaxase ko bu baax jaay ko ci prix bu baax jël meew sotti ci ndox jaayee comme ne meew la jël soow def ci ndox te wax ne wax ne lii saw la lépp loo jaxase lu baax ak lu bon te jaay ko ci përëb lu baax loola mooy tot fiif alquran ne bu leen ko def ne mu ne mel na ni jafe na waaye musuñoo togg bakkan lu mooy lim man li leen wax yépp man ngeen ko kon def leen ko juróom-ñeenteel ba mooy nga maando ci sa wax booy wax na nekk rek dëgg donte dëgg gi day dal ci sa kaw wala mu dal ku la jege ci bokkit na nga ci wax rek li nga xamne moy deug aw jangon nañ ko ya ayyuha alladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada ala allah wala ala anfusikum ay walidain wal aqrabin fukkil bi ko lere nañ ko matal bul wor bul wuruj sone waw nay waw boni det nay det nga matal lere buñ la denké mbir buñ ko soxla nañ ci jot buñ la denké wax ne bu mu génn bu ko boroom déggaat naka noonu soo ne waaw na nekk waaw boone déet muy déet boo ne dinaa ñëw na nga ñëw boone ne du ma ñëw bul ñëw mu ne loolu itam waxoon nañ leen bu yàgg ne seytaane moo wax ne bu leen seytaane moo leen di dimbalee ci ngeen di wuruj te jaamu seytaane mooy wuruj alama adilikum ya bani aadam bu taabudu seytaan te seytaan moo leen di xiir ci loolu yonent bi alayhi salaatu bu jàngalewal aaya jii ba yegg si foofu mu ne bërét dal di rëdd ci tànkam aw rëdd ba fële mu daal dellu jël baaraamam rëdd rëdd yu ndaw yi daal di yoonu yàlla waa ngi ne cowwa wax naa ko lii ma rëdd ak baaraam nag mooy yoon yi nga xam ne ñeneen ñoo ko fi sos su ngeen ko toppee da ngeen bàyyi li nga xam ne moo di yoonu yàlla wi kon nag bu leen topp yoon yi ñeneen ña tey bàyyi yoonu yàlla loolu mooy nun rek daanaka boo seetee ñun ñëpp léegi ay rëdd yu ndaw ndawaan la ñu topp koone ci yàlla nee na mu ne diwit nee na koone yenent bi nee na mu ne dégg naa diw neena na wala mu naan la dégg ci ku baax mu dégg ci ku baax mu wax nangam mu def nangam xiila ak xiila moo leen gënal yàlla moo leen gënal yàlla wax na moo leen gënal yenent bi nee na yoonu keneen moo leen gënal yoonu yàlla néew na fi moos ku nekk ci kitaab ak sunna ak koo xam ne sa topp lépp mooy yoonu yàlla ku ci nekk yoonu keneen nga topp moo tax yonent bi ne bu leen yàlla ne bu leen topp nag yoonu ñeneen ña ba bàyyi sama yoon wa ñun nag topp nañ yoonu ñeneen ña ba bu diw jiitee nga ne ma ngi ci yoon sàngam warumaa jiite duñ bokk jàkk du ko may jabar bokkuñu nangam ak nangam kon nag yoonu yàlla wan bokkoon mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ak iqamatu salaa ak itaayi zakka ak xajji baytullahi alxaram kon bàyyi nañ woo yoonu yàlla woow topp yoonu ñeneen ña ba loola teqale ñu moo tax nu teqali ko ba dootuñu daje mukk ba pencam yàlla waaye ku ci del si wut ci dëggu yàlla gii ak yoon woo mën a topp lu mu yàgg-yàgg doo texe fa nga jaar aw yiw nekku fa yiw waa ngi ci li yàlla wax waaye nekkul ci li keneen wax buur ne qul waxal yow muhammad ne taalaw ñëw leen kaay leen yéen ñi gëm yàlla at lu ma jàngal leen fii maa lépp li nga xam ne xarama xaraamal na ko yàlla ali rabbukum seen borom aleykum ci yéen mooy lan allah tushriko bu leen bokkaale bi yéeg yàlla cheyan dara wa bil walidayni seen ñaari way jur ixsaanan ngeen def ca lu rafet wala taqtulu bu leen rey awlaadakum seeni doom min imlaaqin ngir ragal ñàkk naanu ñun yàlla narzuqukum noo leen di wërsëgal wa iyaawum ak doom ya wala taqrabu bu leen jege alfawaxisha ينياويا ما ظهر لفينا منها فواحش وما بطن أغلن لنبنا ولا تقتلوا بلان ري نفس بكن التي بكن بغا قمنا حرم حرامل نكلاو يلا إلا بالحق لمي دق ذلكم لو لسين وصاكم دنكن لن يال بي لالو لعلكم دعين تعقلون نجنام قل ولا تقربوا بلن جگه مال اليتيمي على الجرم illa billati lu may gi nga xam ne hiya ahsanu moo gën a rafet ata yabluga ba mu jot ashudda woog dëgëram waaw foo matal leen alkayla am natt wal misana ak peese bil qist ci ci maando laa nu kallif duñu togg nafsan bakkan illa wusaa lu may man wa ida qultum su ngeen waxee faadiloo na ngeen ca maando walaw kaana donte nekkoon na wax ja za qurba jëm ci boromi jege ñaale wa bi aadillahi ko yàlla aw matal len ko dalikum lol sen wasakum dénk na leen yàlla bi ci loolu laallakum ndax yent tadakkaroon yàlla waxna ci aaya ji ñaari yoon daalikum wasaakum bii laallakum taaqiluun aw ben bi mo ne tadakkaroon ma ko wax ci ñaari mbir ben ba ci ray bakkan la ko wax ben bi man ko wax ci kóolëre kon ñoo ñu lay degeural wa na hada na kalima ma net li muy fukki mbir sirati yàlla ne li dey modi sama yoon mustaqiman mu yaaji jup fattabicuhu toppaleen ko wala tattabicu bu leen topp la yoon ya fa tafarraqa dana teqale yoon yooya bi kum ak yéen an sabilihi walis yoonu yàlla wa daalikum loolu seen wasaakum dénk neen bii ci loolu loolu it gis nga ni ko ñoree baamtu nag loolu it ndax ñor na ko muy teqalikoo googu laallakum ndax yéen tattaquuna ngeen ragal yàlla bokk na ci gàttum xel nit koo xam ne boo solo wala nga génn ku la gis rek xam ne ci yoon sàngam nga farak fii nga féete loolu bokk na ci néew imaan ak gàttum xel ndax li muy tekki mooy yaa ngay wane ne ku farut fii rek warunoo ànd dafa war nekk sam noon kon doomu aadama dafa war a neutre neutralité lu jafe la waaye doomu aadama war na fexe ba diine yàlla ji moom mu farak ñépp rek mën a dem ak ñépp mën a wax ak ñépp nekk ci digg bi ñàkk def farfarloo su ko defee doo encouragé teqalee waaye bu fekkee saw melokaan ak sa col sax ku la gis am fu mu la dëkkalee yow léegi yaa ngi encouragé teqale ndax bëgg loo ànd ak ñu ca des loolu itam bàyyi ko bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci alquranul karim ñi ko gëm ak ñi ko weddi mu ne su ma aatey naa jox nañ Muusa alkitaaba téere ba mu di tawraat tamaaman muy aji matal ala ladi ci la nga xam ne ahsana moo gën a rafet wa tafsilan mu nekk di teqale li kulli shay'in ci lépp lëf wa hudan muy njub wa rahma mu nekk yërmande laallahum ndax ñoom yuminuuna ñu gëm bi liqaay rabbihim ci dajeeg seen borom wa hada téere bi itam kitaabun téere la anzalna naa wàccee nañ ko mubarakun mubarakun mu nekk lu ñu barkeel fattabiuhu toppaleen ko wa taquu te ngeen ragal yàlla laallakum ndax yéen turxamuuna def yi leen an taqulu ngeen di wax naan innama unzila naka wàcceef na alkitaabu téere bi ala taifatayni ci ñaari kuré min qablina ci li ñu jiitu mu ne lool nag lay bañ ngeen wax ne yahud na saraan yi ñoo amoon téere waaye ñun amunu wa in kunna naka nekkoon nañ la gaafilina di way sàgganee an dirasatihim ci jàng tawrat ak linjil aw taqulu walla ngeen dem bay wax naan law anna donte ñun arab unzila wàcceef na woon alay naa ci ñun alkitaabu téere niñ ko wàccee ci yowat na nasaraan la kun naa kon ñu nekk ah daa di gën a jub minum ci ñoom léegi nag lay wowu jeex na faqad jaakum dikkal na leen bayyinatun lu wóor min rabbikum lu bàyyee ko ci seen borom loolu arab ya la ak ñun itam lu tax ak ñun ñu nit wàccut ci suñu làkk waaye yàlla def na waxtu wu nekk ki xam làkk wi dana fi nekk feeg ba yàlla jëlee diine ji ku xam téere bii li muy wax dana fi nekk kon nag mu ngi mel ne ñun ñëpp xam nañ ko ku ko xamul ya ngaa sàggan ndax ku ko xamang fi boo ko laajee mu waxal la ko wa hudan jub la wa rahma yërmaande la fa man adlamu ana kan moo gën a tooñ mi man kaddaba ku weddina bi ayat laa ci alquran yàlla wa sadafa mu dëddu ana walis ko sa najzi xaalis nañoo fay lazina ñi nga xam ne yasdifuuna ñooy dëddu an ayatina walis suñu alquran danañ leen fay soo la adaabi ñaaw mbugal bi ma kaanoo ci la ñu nekkoon yasdifuuna di tere ko wala di dëddu ko tere ak dëddu mooy sadaf ba tey nettali na jëlee bu abu hurayrata ne am na ñetti mbir bu amee képp ku gëmuloon yàlla soo gëmee duñ ko nangooti képp kuy tuub boo tuubee duñ la baalati nee ñetti màndarga yooyu yonent bi nee na mooy màndarga yi tukkitel àddina day wane ne yowmal qiyaam jege na ak yi nga xam ne bu ñëwee teew na yi nga xam ne bu ñëwee tukkitel àddina jege na yonent bi tudd na leen an talidal ammata rabbataha wa an tara al ufaata ruaata ruaa shaay yatataawaluuna fi lbunyaan mu ne buñ demee ba jaam bi juróom sangam xamal ne léegi àddina tukki mooy nit ki gëmatul ak baax gëmatul ak yiw ba buy tekk jabar fu mu rafetee rek mu jëli donte dañ ne ko kii yaa ko moom sab jaam la it bu rafetee dina ko jël loolu antali da rab al amata rabbataha te loolu xam nga ne am na léegi beneen ba mu ne nga gis ñi ñi nga xam ne xamuñu woon démb lu mooy sàmm sàmm ay gàtt tey ñooy tegale ay taaxi kaw loolu itam xam nga ne am na ci màndarga yi la nee na beneen bi mooy dañuy toog ba jigéen ñi bari ba ëpp góor ñi xataa yakunu li kulli asharatin qawaamun waaxid fukki ñu nekk génn góor a fa ne boo ko seetloo léegi mu am da dem ci kër génn góor rek fay nekk yëngatu ñi ci def ñépp nekk abaan man suuran boo xam ne kooku ci moom la ñuy aju li may wax toujours suñu jeunesse bi ne war nañoo góor góorlu ndax ndaw loo xam ne daanaka yow mu doo jéem a def dara mbir mu nekk rek ñett nga koy teg tonton bi paa bi grand bi yow nag ba kañ doo nekk grand doo nekk tonton doo nekk paa bi paa bi tonton bi grand bi lu ne ñoo koy réglé loolu phénomène bu doy waar la mooy nit koo xam ne dem nga bëgg a matoo sa bopp màndarga mi nga xam ne nag su yëgsee mooy bés bañ ci yëgsi na te boobu bu xasee ñëw ku tuub dootuñ ko nangu mooy keroog bu jant bi fenkee ci fi muy soyee keroog boo xam ne dajjaal génn na muy daabatul ardi boo xam ne jàng nañ ko dañ ko jàng ca kanam dajjaal mufassiroona yi dañu cee wute lool am nañu wax ne dajjaal mooy waxtu woo xamee ne ñay woote yonent bari nañ mu ne ñooñu ñoo di dajjaal a dajjaaluuna salaasuuna wala kaddaabuuna salaasuuna kulluhum yazamu annahu nabi gayra annahu la nubuwata baadihi yonent bi nee na balaa ma fi balaa dina tukki fanweer ñu mag ñu am daraja ak mbooloo ku ci ne dana taxaw ne yàllaa ko yónni kaddaabuuna salaasuuna kulluhum yazamu annahu nabi gayra annahu la nubuwata baadihi mu ne waaye dañuy fen rek ab yonente mënta am sama gannaaw mu ne bu dëjjaal yooyu bare booye ba nga xam ne bis pénc dal nay mal si lool lay nettali am na ñu ca nettali feeñu mahdi mahdi ci boppam mbir la moo xam ne dañ caa wuute ca ulamaawu tafsir am na ñoo xam ne pour ñoom mahdi yi ñëwagul balaa muy ñëw daal day fekk dinaa ngi tukki loola am na ay xadis yuy dëgëral wax jooja am na ñoo xam ne seen mahdi ñëw na ba dem na loolu mooy ñu mel ni ñu mel ni waa Iran ak lu gën a bari ci chia yi ñu bari ci ñoom ne nañ seen mahdi ñëw na ba dem na mooy muhammadul mahdi al muntazar ñu ne nag boo seetee bu fekkee jàng nga histoire yu a al itna achara ñoom am nañu fukki ilimaan ak ñaar ki ci mujjoon mooy muhammadul mahdi al muntazar danañ koy tuddee alqaayimu bil hujjati kooka nag bi nga xamee ne eh, génn na àddina cheikh yi daje ñoom ñëpp ñoom cheikh yi ñu ne mahdi deewul dafa làqu waaye dana ñëw eh, ca mujj ak jamono ñooñu itam ñooñu loolu moo di seen thèse ci mahdi waaye xanaa rek li ay kel waxoon rek lal mahdi yi walal mahdaawi nee na mahdi amut ku koy dodolu it amut li am daal moo di ne li lay tekkal ni amut mooy ku nekk woote na ko réew mu nekk am na fa gox bu nekk am na fa léeg leen nga dégg ko ba yàgg mu jeex nga déggaat ko ci beneen réew ba yàgg mu jeex mu ne mahdi daal képp kuy jubal doomu aadama rek mahdi yu nga tudd képp kuy jubbanti yow mahdi yu nga waaye képp kuy réeral dajal nga loolu mooy qaayida bi nga xam ne moo wér buur ne xaal na ndax danañu muñandiku ndax dañuy xaar illaa an taatiyahum ba dikkal leen almalaaikatu malaaka ya aw ya wala dikkal rabbuka sa borom mu ne ñoom la ñuy xaar xanaa dañuy xaar boog malaaka yi ñëw alag leen wala boog dañuy xaar yàlla ñëw ak boppam aw yaatiya wala boog dañuy xaar dikk baadu ayaati rabbika lenn ci kaw sa borom te loolu mooy yi ñu tudd mooy yi nga xam ne bu ñëwee ku tuub dootuñ ko nangu yow ma yaat yi bés ba dana dikk baadu ayaati rabbika leen ci kawtefu yàlla yooyu laa yanfaa du jëriñati nafsan bakkan imaanuha gëmam lam takkun gu mu nekkuloon aamanat di gëm ku min xablu ci jëkk aw kasabat wala mu fàggu ko fi imaaniya ci gëmam xayran aw yiw xul waxal ne intadiroo yéen daal xaar leen innaa ñun ñi ñu yónni muntadiroo na ñu ne ñoo ngi xaar ba xam fan la ñuy mujj ak yàlla moomu le inna ladina naka ñi nga xam ne nag farraqu ñoo teqale yonent bi sallallahu alayhi nee na alul kitaab teqali ko nañ juróom-ñaar fukk ak ñaar ñépp safara la dem nee na sama xeet danañu teqali ko juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett juróom-ñaar fukki ak ñaar safara la ñuy dem benn ci nekk demal jan ñu ne ban mooy benn bi mu ne mooy bi nekk ci li ma nekkoon ak samay saaba di attewoo kitaab ak sunna waaye lu mooy boobu ñu nekk ca yeneen firaq yépp teqaliko yi yépp sawara la ñuy dem moo tax sama borom ne inna na naka ñi nga xam ne farraqu teqale nañ diinahum seen diine ku ne nekk ci saw yoon wa kaanu ñu nekk chian di ay kuré kuré ci lañ jëlee chia kullu lay lasta minhum yow yeneen bi jotewoog ñoom fi seyin tos ñoo ñuy teqalikoo bàyyi kitaab ak sunna yow bokkoog ñoomu yoon moo tax yenent bi sa alayhi wasallam yowmal qiyaam dafay xool ñu ñuy jël di yóbbu safara mu ne yàlla ñële day sama xeet lañ te ñu ngay dugg safara malaaka yi ne ko déedéet yow xamuloo lu ñu def seen gannaaw sa gannaaw innahum baddaloo wa xayyaroo la nga nekkoon dañ ko soppi nekkoon ci leneen ñii bokkuñ ci yow لست منهم في شيء جوتيوك نيوم دارا إنما أمرهم ناك سين مير إلى الله جمنك يالا ثم ينبيهم يالا مولين دي صلو بما كانوا تلين يكون يفعلونا دي دفكو كون دال ريغل بموديني من جاء كدك نفكنم يالا بحسن بالحسنة موين دي جف جباخ فلو نينكو عشر أمثالها فكي lu tol ni lim defoon ci benn bu baax ñu fay ko ko fukk waaye wu man jaa ku bi sayyiati ci lu bon kooku fa laa yujzaa defu ko fay illa mislaa lu may benn bu bon bu mel ni bi mu def loolu ak baaxam la waxum te ñoom laa yudlamuuna defu tooñ leen ca pay ga qul waxal ne inni nii naka man hadaani jubal na ma rabbi sama borom ila siraatin ma jëm ci yoon mustaqimin wu daa ji jub diinan diine la qayiman bu daa ji jub muy milati ibrahim dina ibrahima xanifan mu yaa ji jëng wala lépp lu jëng wa maa kaana nekkul min al mushrikiina ci way bokkaale qul waxal ne inna salaati naka sama julli gi may julli wa nusuki ak gàtt yi may rendi ci tudd geeg tabaski geeg jaamu yàlla geeg hadiyu bi wa mahyaaya sama dund bi yépp wa mamaati ak sama dee lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamin kii borom bindee fi la sharika déraa bokkaale la wa ñeel yàlla wa bi zalika man man day ci lii umirtu la digaleef ma waa naa man mi koy wax أول المسلمين ما ينجيل بينك كي أمتو يمتع كي قل وخل ني أبغي نغدم يساكو غير الله لما يال ربا مي برم وهو تيال رب كل شيء مي برم لب لف ولا تكسبو دفاقو كل نفس بيب بكن إلا عليها لما يلالو كي قوام لي ولا تزرو دوينو وازرة بكن بي بكار دوينو مك وزر أخرى بكارو كنكي سوما رجعكم seen delluwaay ila rabbikum jëm na ci seen borom fa yu nabbiukum dana mu solo leen bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon tax talifoona di wutee fii ci ak defam wa huwa yàlla moom allazi mooy buur bi nga xam jaalakum def mu leen xalaayifa ngeen di way xalaayifal ardi ngeen nekk di way wuutu ko ci suuf wa rafa yàlla yëkkati na baadakum ci yéen fawqa baadin ca kaw ñenn ña darajaatin ay daraja li yabluwakum ngir mu nattu leen fi ma ataakum ci lim leen jox inna rabbaka nak sa borom sariw li iqaab aji gaaw li ci mbugal innahu yàlla la gafuurun aji bale la mu rahimun yàlla aji yërëm la mu walaw annana nazzal